لنا بهذا المحضر بالتعطيب بنظرة تأتي لنا بظهر بعد المدة الأخرى الحضرات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سادة الحضور إخواننا الأجلاء ضيوفنا الكرام أصحاب رسول أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وفدوا من جميع البقاع الأرض ليشاركنا حفل هذا المولد الكريم مولد سيد البشر مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحيي جميع الحاضرين وعلى رأسهم الشيخ محمد البشير ابن الشيخ الحاج محمد زينب وصنوه الشيخ سيد العربي والشيخ الحاج محمد زينب وضيوفنا أحفاد الشيخ التجاني وضيوفنا الذين جاءوا من المغرب شريف إدريسي مع هذا المنشد الذي أسلج صدورنا بالمشاركة معنا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم نشكر جميع الحاضرين وقد طلب مني أن أشرح قصيدة من قصائد الشيخ إبراهيم كالعادة وأهنئ حضرة الشيخ في هذا اليوم البهيج آه، نهنئ الخليفة الشيخ محمد الماحي وإخوته وأولاد إخوته ونهنئ الشيخ محمد الأمين والإمام شيخ التجاني ونحيي جميع الحاضرين ونهنئ أيضا فتيان صدق الإخلاص الذي آه، اعتاد ودأب على تنظيم هذا اليوم للمشاركة في إحياء فعاليات هذا هذه الأيام المباركة بالمشاركة بقصيدة من قصائد الشيخ إبراهيم رضي الله عنه ñu ngi nuyu ñëpp di ndokkeel ñëpp di nuyu tiim fon Medina Baye bi nga xam ne ali Diop wax na ci seen làmmiñ te ñu ngi teew ci eh, vice président baa nga gisee ak leminlo ñu ngi nuyu Fityaan Sidqin wal Ixlaas ci njiital Cheikh Ibrahim ibn Sayidi Tayyib ibn Cheikh Serigne bay di nuyu suñu doom yi fi teew Moustapha Cissé suñuy rakk Amadou Niass Mamoun ñu ngi nuyu ñëpp daal ci gàttal <coughs> di barkelu ci qasida bi nga xamne mom lañ bëgg jàng di ñaan yàlla mu nekk shifaan wa wiqaayatan wa taxsinan wa jalban wa fathan lana wa lil jami qasida bi señ dom haaj omar fa omar jàng nako ضياء من الهادي البريه مصطفى خيارهم إذ إن ربي قد اصطفى قصيدة بي مونتي سير القلب كم كم نيكو نيب خامي سير القلب لب باي مونتي تاغ يونت صلى الله عليه وسلم كم نيغا خامي ني مجك تاغام يب tagg yonent bi la sallallahu alayhi wa lim ko taggee tim ci mujj ak taggam yépp yépp ci baxru tawil la seyrul qalbi kon ci baxru tawil la ko baay toggale baxru tawil tur wi rek doy na dafa gudd moo tax ñu tuddee ko baxru tawil yonent bi itam moo gën a gudd ñëpp dayo moo gën a yëkkatiku ñëpp maqaama muhibbin yi sax wax nañ ne baxru tawil mooy baxar bi nga xam ne muhibbin yi moom lañ gën a tànn te boo doon jàng tim muallaqaat yi danga gis ne li ci ëpp ci baxru tawil la nekk moo tax bàyyi moom la tànn ci li gën a bari ci taggee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ci taggee na ko ci yeneen baxar yi baxrun basitun kaamilul maddi waafirun wa kawniya iyaahu alayhi yasiiru taggee na yonent bi ci buxur yooyu nga xam ne dafay daf koy bëgg di indi seen tur ci tagg yonent bi ndax maanaaye baxar yooyu yëpp dafay niroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baxrun basitun ndax dafa tàllalu yenent bi moy ki nga xamne leralam leram talalu na jëm ci adina yeb qad jaakum allahu nurun wa kitabun bin yahdi bihi allahu man ittabaa wa subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim koku moy leer gi mané ne bàyyi ko bahrun basitun كامل المد وافر taggee na yonent bi ci bahrul basit te loolu ci ci yeneen téere mi waaye du diwaan sitta diwaan sitta téere bi mat na ñetti junney bayt ak nangam mas naa ko bind fenn njëkk dépasse xam naa xam naa moo xamoon fu nekk danaa xam danaa mën a wax xam naa ne mat na ñetti bayt ñetti junney bayt ak yëpp ci benn baxra la mooy baxra tawil lu may benn xasida boo xam ne dugal nañ ko ci jullu fikri fii ma maali ahmad al jëmmi nawaali nga xam ne ci baxra ramal la waaye taggee na ko ci bahrun basit mustafilun faailun mustafilun faailun bahrun basitun kaamilul maddi kaamil xam nga dafay niroog yonent bi ndax moom mooy ki mat mutafaailun mutafaailun mutafaailun taggee na ko ci mëdd taggane ko ci waafir mufaalatun mufaalatun faulun waaye da ngay gis ne mëdd lu tàllalu la waafir lu tàllalu la moo tax muy waxaat ci biir taggeem yonent bi wax waxrun basitun kaamilul mëddi waafirun kawni yaaw alay yasiru wa alayhi abi qaasaahu wa huwa te mbëggeel googu nga xam ne maa ngi ci roy sama baay mu nga xam ne doon na dem ba nekk mag di sonnee mbëggeel googu ndax nekk mag enu mbëggeel yombut li ci tegtal mooy bàyyi mbëggeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaaj keroog bañ tëralee Ali Ali Maddah mu ne dafa xam bàyyi ni mu bëggee bayti Ali nii ba bàyyi feebare nekk France mu ne ma seeti ma dem defar bandi Ali ñëw indi ko indi ma ñetti fan bi teg bàyyi na ko déet déet suma yaram bi attanu suma yaram bi attanu lii suma yaram bi attanu lii moo tax euh, wéyam yi. dafay dafay génn fekk mu ngi génn ci xol boo xam ne dafa enu dafa enu lu diis ci mbëggeel euh, wëy yi moo koy moo koy nokkiloo ci loolu dana koo xam ne bind na wéyam ci mbëggeel waaye bu paree sax bëggatu koo dégg nga gis bàyyi wéyam yi nga xam ne moo ko wéy yonent bi sallallahu alayhi wa pare bët bu set euh, mu toog bugg koo dégluwaat loolu daf ñuy xamal ne ñun war nañ koo déglu war nañ koo jàng waxoon na feneen ci ba buntab di wax ne wax al Amin al Jëkkani ci buntam bëggee li bi sallallahu alayhi wa mu ne ko lu ko yokk mooy jàng am daaxam yi jàng siiraam jàng jàng julli ci moom jàng way yi ñu ko taggee mu ne ko man nag li ma ko taggee moo gën a xëy ci yow wa in kaana ma qaala gayri ala wa agla li anna almashraba waxidun mu ko man lima tagge yonentou mo gëna gën xëy ci yow donte ñeneen ñi seen tagg gëna for gëna yëkëtiku lolu ci buntab tawaadoo la diyaun min al alhaadi bariyati la commencé dañ doon firi baat yoon diyaun min al alhaadi bariyati mustafa xiyaarihim leer gu nga xamne mo tukke ci ki nga xamne moy aji jubal mbindeef yépp yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla nee na ko wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim da ngay juble jëm ci yoonu njub donte yàlla wax na ko ne ko innaka la tahdi man ahbabta doonte ku duwut ne ku la neex rek ngay jubal loolu mooy wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim mooy yow da ngay tegtale njub waaye kii maye njub dëgg-dëgg yàlla la kon alhaadi mooy yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga haadi dëppoo naag diyaaw ndax kuy juble dafay dafay leeral kon baat baat yu méngoo la boole diyaaun min alhaadil bariyati leer gu nga xam ne mu ngi tukkee ci nga xam ne mooy aji bidal mooy aji jubal mbindeef yépp kooku mooy kan Mustafa xiyaarihimu mooy ki nga xam ne ñoom ñépp ñiñ tànn ci ñoom kii seen tànneef mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is anna rabbi ngir sama borom qad istafaa tànn na ko ndax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne ana xiyaarun min xiyaarin min xiyaar yàlla nee na ko laqad jaakum rasulun min anfusikum am na ñoo xam ne dañoo jàng min anfusikum yonent boo xam ne tukkee na ci ki leen gën a tedd moo gën a tedd nafsan moo gën a tedd urumatan moo gën a tedd ci mbooleem yonent yi bu ñu leen boolee moo tax bàyyi ne ko Muusa wa Ibrahimu ma najli maryamin lahum rutbatun wal kullu amnun li xaaifi walakinama almuxtaaru arfau mansiban fa minhu manaalu alaqdamin algataari fihim Muusa ak Ibrahima ak Isa ñoo ñëpp bàyyi ne na am nañ ay dayo yu kawe de waaye te ñoom ñëpp kóllëre lañ ñeel ku ragal ku tiit ndax ku ànd ak ñoom ñi musal la ci xay àddina ak xay àllaaxira ndax xay àddina li ci gën a bëri li koy bijji mooy ñàkk topp ci yoon am nañu nekk ci kaso dañ leen a tooñ mais ñu gën a bëri ci ñuñ tëj dañoo teggi yoon rek moo tax ñu tëj leen kóllëre ak àllaaxira tim topp yàlla rek moo koy maye te yàlla kenn du ko topp ni la neexee danga koy topp ci ni ko bëggee te ni ko bëggee dafa dañut di yónn ay yonantu yonantu bu ñëw yonantu utu ko yon mu yónni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ki nga xam ne nii mooy mu jëg yonantu mooy yàlla doot yónniwutu keneen gannaaw bu mu yónnee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax bàyyi ne walakinnama almuxtaaru arfau mansiban ñoom ñëpp ay tànneef lañ de ay kóolute lañ ay biddiw yu njub lañ ay jant njub lañ waye ki nga xamne moy muxtar mu yonti al muhammad sallallahu alayhi wasallam mo gëna yëkëti ku ci ñoom daraja te mom ñi jitu ñep ba sang yep ci mom lañ amé sen cang wa kulluhum gurrun saraatun jillatun wa ma kabni abdillahi inda tawaifi ñoom ñëpp ay sang lañ ñu màgg lañ waaye nag kenn ci ñoom melu ni doomi abdullahi ji mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne mustafa xiyaarihimu ki ko tànn nag mooy yàlla tabaraka wa taala xam nga waykat yi bari nañ bu ñuy woy eh, dañuy jaar ay jaaruwaay néew na nga gis bàyyi rawatina bi mu àggee ci wéetalal taggam yonent bi sallallahu muy jaar ay jaaruwaay dëgg la léeg-léeg nga gis da aaniya min salma wa layla wa qalila daat ni mahaatun dalluha wa ibtisaamuha daani dawaana sheybi minha garaamuha daaniya min tizkaari salma wa tandami wa inna jamaal alhaashimi mutaraddami bu nga gis muy muy tuddu lo xamne da fay melni sax da fay def ghazal wala jaar kaay dërkaay te jaaruwaay yooyu bala cee jaar balaa sori rek dana la wax ne bàyyi ko bàyyi ko ndax koo xam ne boo mu nek fi leg leg du fi ne bayiko ngay ànd ak soppe bi nga xamne ni fo nek mu nek fa yow daat mahatun dalluha ibtisamuha dawanit da'anit awan shay bi minha garaamuha qalbi madal iyaama inda qiyamha وقد عز من منها الوصل حتى سلامها خمنا جوكم مم سخ ولا أمني يوم سادة في جفتي مم كوكو باي كونغ دم تكان دم التي سوف يبين خمنا ويان تعالى محمد صلى الله عليه وسلم فيني توك تيمبار مي بوتو جن السلام عليك يا رسول الله حديث جوير له يا الله عندي باي ملاك بو خمنا مو كي وحنا كديو سانغم تيمبارم باي ما تيمدينا باي تكا ولا تكا سنغال نوين لا يونن تبي دلوكو نيو kooku boo ko teg soppe boo xam ne bu la neexee boo boo ko amee tey bu subaa doo ko am moo tax buy jaar ci benn jaaruwaay sax balaa agsi ci jaar yonent bi daf ciy jaar wax la ne bàyyi loolu jàppal kii mahaamin fuaadi xubba layla wa tendemi widaadul imaamil haashimi mu fa xami loolu xam naa ne ñuy jàng adab ñoo gën a soxla nit ñi soxlawuñ loolu nit ñi ay waxtaan bi rek lañ soxla ñi dem ci nit ñi a xaju waaye diyaa un min alhaadi albariyati dafa tëb rek àgg ci li mu bëgg a wax leer gi nga xam ne dafa jugee ci ki nga xam ne mooy jubal ñépp mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam feneen nee na ko dafa tëb rek àgg ci moom diyaa uka minhu lkawnu qad yataballaju wa min faydika aljaari بحارو تموجو يو سالير أدنى بيب شلي لارى شسامي جيجي شليني ببي فنان من فنور به الأنوار والكون كله ادم من ذا النور بان له الرمز لير جيجي قمنا لير يبتي مملن تكيمو ينشال محمد صلى الله عليه وسلم jàng nañ ko léegi qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabu mubin parce que ba mu ne ba kitaabu mubin ci lañ xam ne ñi firee na nuurun mooy yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam am nañ dëgg ndax al atfu lu nax yi nii wax al atfu al atfu yaqtadi al mugaayara al atfu yaqtadi al mugaayara buñ ne omar ñëw na ak zay wa zaydun waaw googu dafay tegtale ne omar ak zaydun du benn qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabum mubin kon yàlla tuddee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leer leer la fu nekk walxaana waslu min xabibi ba tabhaju ala daka nafsi waddiya yetaballaju ba tey ne mata sataat barqul wamiidu محمد tëddalët mu zunu ribxi wastawtana al izzu looloo tax nag ni nga xamee ne si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy cosaan leer walay jaala shamsa diyaan wal qamara nuuran fii diyaa la wax dañ ko tuddee nuur waaye diyaa ñu ne mooy cosaani leer ndax looloo tax yàlla fii mu wax ne jant bi diyaa la xamar bi nuur la ndax xamar dafay tukkee dafay jëlee leeram ci jant bi xam nga weer amut amut amut leer dafay dox ba toog leeri jant bi rek loolu lay joxe moo tax diyaa foofu noonu moom moo gën a foofu ma ne nee na ko walam yeku bil imkaani abdau min kaya muhammadu aynul xaqi man nuuruhu xalas amul dara lu nekk ci nekk gi xanaa li li Ghazali waxoon bàyyi moo ko dugal fi mu ko war a dugal ndax دفع إمام الغزالي موخن موخن ليس بالإمكاني ابدأ مما كان أمد لجنا من هم شلو باسون لول بوكو دوغلو تون شي فغا باي دوغل شي يونت بي صلى الله عليه وسلم داغا واخني با بوسن نيغي سلو غنا هيمي لو في نيكون واي موتا باي نيكو ولم يكو بالامكان عبد ابدع من كيا غيسون نيكوت لو لو جاباندي لو لا غنا هيمي يوم يوم محمد ki nga xam ne yow yaay leer dégg dëgg ku yàlla ci yàlla yow ki nga xam ne man nuuru xalas leeram dafa dafa dafa sell wa min faydika aljaari albihaaru xabaahu may na ko moom yàlla yàlla dafa may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam واعتاه تجوكو المقام مقام كانه نك موم مراد مريد الكائنات موي كن نم تي ادي نم اك نك جي مي يالا نم اك يالا دال مو يونس محمد صلى الله عليه وسلم ومصطفى موي تانفام مونے دا فا ملني دال موي لي يالا نم يالا داف ني يونس بي صلى الله عليه وسلم يولا بند غير مان دي تي ديس دام لينا بند ngir yow yàlla jox na ko may ko maqaama bi nga xam ne maqaamul mahmud bi nga xam ne wax na ne ku dégg noddu nga ñaan allahuma rabba hadi daawati taama wa salaati alqaayima aati muhammadan alwasilata walfadila wa qasul maqaamul mahmoud alladi waadta ku ko wax xaddat lahu shafaati mu ne ku ko wax moom ram moom yonentu bi war ñeyal la te yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ne maqaama boobu kenn rek ko eeyoo yowmal qiyaamati te defe ne na moom la تخم غن لولو سي بونتب تواضع لا كو يونت بي وخي واي صلى الله عليه وسلم بو فكي امنا مقامه بو خامني كين رك كوي ايو يوم القيامه دو نيال كين لومي موم يونت الله صلى الله عليه وسلم وتا باي ني يالا جوخ نكو ماي نكو نخم يالا ماي نكو با وخ كو نكو ولا سوف يعطيك ربك فترضى يالا دانا لا جوخ بڭا گرم يالا دانا لا جوخ بڭا گرم باي ني توجهتو qasida bi daf ko bind ci ajam tawajjahtu min ahli bi kawlaxa khasairan jubluna naa ci sama ñoñ sama njabot ñi nga xamne ñi ngi kawlax saairan may aji dox ilayhi jëm ci mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wali ta fek ñehal na ma xubbun mbëggeel bay aji sax wali ñeexal na ma iqtifaaun topp buy dëggal sax ak mbëggeel gi ndax comme niñ koy waxee ñun ñëpp dañ koy wax maa bëgg baay bàyyi nag di ñu wan ku bëgg noo war a def wali ñeexal na ma xubbun rasuuxun am naa mbëggeel gu sax ci yonentu bi sallallahu alayhi wasallam lan moo dëggal sama mbëggeel googu mooy iqtifa dama koy topp moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah li yàlla wax yonent bi bu ngeen bëggee yàlla topp leen ma man muhammad yàlla bëgg leen mandargaay bëggee li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy topp ko jàpp ci sharia bi jàpp ci alquran jàpp ci sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lépp yonentu gënal la sallallahu alayhi wa lépp keneen kum du moom ay turam gënal la turi ñeneen ñuy moom jëfam gënal la jëf yi ñeneen ñu may moom sunnaam gënal la yoon yi keneen ku may moom loolu mooy tegtale mbëggeel gi bi mu wax ne maa ngi ànd ak mbëggeel gu sax ci sama xol waaye mbëggeel googu nag li ko dëggal mooy maa ngi topp yonentu bi sallallahu alayhi kon li dëggal mbëggeel mooy topp muy tudd dëkk yim jaar bi Yoff Dakar Yoff bi Las Palmas ci Espagne bil gharbi ci soowu jant iran may aji naaw fekk mu nga xam ne mu ngi ci avion la dugg yoon bi jaaroon na foofu fekk bato la duggoon ilayhi jëm ci moom bi shawqin ànd ak cofeel wala bi shawqin ci sabab ak cofeel goo xam ne xaj dahaaniye jot na ma mujj ni fa ma da koy songongal ma ànd ak cofeel goo xam ne cofeel gi ndax maa feebarloo ndax cofeel dana dana feebarloo aji sopp ji bi baxra ci baxra baxra ci diggante jidda ak madi eh, la bi ajiyaat ajiyaat ci makka la léegi fu siiw la ndax eh, ci yu bari foofu la nekk bi awali masjidin ci njëlbeeni juma muy إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان آمنا موي أول مسجده أول مسجد موي آه، بيت بيت الله الحرام موم لاي نيك بيغا خامني موم لا نجهك تخاوال تي كاو سوف كناوام نعم فوكي ات ني دار تخاوال بيت المقدس جمعه يونتي ba yonent bi gàddaayee sallallahu alayhi loolu la njëkk taxawal waaye awalu masjidin mooy fan mooy Makka masjidil haram mooy jumaay Makka bi mawlidihi bi mawlidi aw fil aalamina ci judduwaay ki nga xam ne moo gën cee mat ci kóllëre ci mbooleem àddina bi te afufan ci fegu te mooy gën a mat nit ñi ci fegu tim yonent sallallahu alayhi wa sallam moo gën a fegu képp kuy fegu rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la gën a fegu mu ne maa ca Makka ca barab bi nga xam ne ci fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo waaye bi Makka ca Makka ba tey nga xam ne mu ngi ba bëgg Makka ngir asaar yi ngir ne fii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoon ngir ne fii la néeg bi nekk bi ruknil azimi ci xajar al aswad bi zamzamin ca zamzam asiiru maa ngi dox ma al abraari ànd ak way baax ñi xal bi fekk sama xol tasawafa sufiyankew na nga xam ne dem na ba boole sharia ak xaqiqa loolu mooy xal bi tasawafa mooy xolam dem na ba sell na ci nekk leneen lu may yàlla tabaraka wa taala ndax suufiyanke yi dañuy wax ne saafa fa suufiya hatta summiya suufi moo xam ne dafa sellalanteeg boromam boromam sellal ko bañ tuddee ko suufi mu ngi naan yàlla nag fa zikraka sa téere bi alquran ji lu moom laay jàng inda baytika ci néeg néeg sa bi ci sa néeg bi arta ji may yaakaar masiir yi dox sama ilal haadi jëm ci haadi ki yonent bi sallallahu wa sallam wa hammi te fekk sama njàqare yépp xadinte fa dàqu na maa ngi makka maa ngi jàng alquran ànd ak maa ngi waajal sama bopp di xaddu nag pour bu ma jógee foofu dem ziyaare yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa xam nga bàyyi ak bi yow mi atluuhu bi jahrin wa xufiyatin dawaaman wa mislu yow mi fii daaka layluhu maa ngi koy jàng ci sama bés <coughs> ci kaw ci suuf ci lu sax ni ma koy jàngee ci guddi noonu laa koy jàngee ci bëccëg kon jamonoom yépp amul ben jamono ci jamono mi lumay da nga gis ne jamono alquran la ndax dana ko bidal dana ko yalu dana ko jàng ci waxtu gudi dana ko jàng ci waxtu bëccëg معي ذكر مولانا الجليل جلاله من الصادق المصدوق أحمد نقله بيومية أتلوه بجهر وخفية دواما ومثل اليوم في ذاك ليله mu ngi màkka waaye mu ngi naan yàlla maa ngi jàng sa téere maa ngi yaakaar nag dem ziyaara ji sa soppe bi nga xam ne moom joxe na faysal ci wax yi ñuy werante ndax nit war naa dem Medina di wax ne jumaa ji laay ziyaara ji wala yonent bi laay ziyaara ji ci ñom fiñ ko tek moy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne la tushuddu rihalu illa ila salasati masajida duñ duñ tak tukki jëm ci juma lu may ñetti juma masjid al haram masjid hada wa masjid al aqsa bàyyi lolu moy duñ dem tukki jëm ci barab ci juma ngir jëmmi juma ji waye ken waxul ne ken du tukki ngir ziar yonent kenn waxul ne nit du tukki ngir sàkku ji xam-xam gis nañ ci saxaaba yi ñoo xam ne tukki nañ doxam ñaari weer pour leeral benn xadis li nekk ci na ngëneeli ziyaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yëpp duñ ci jaaraat waaye la baay wax wa man kaana yanxu lil madinati zairan siwaahu fa inni jitu ahmada zaira baay nee na képp koo xam ne yaa ngi dem medina madinatu rasul di ziyaare ji keneen man de man damaa ñëw pour ziyaare si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi xamoon na ne ci jumaam ji lañ koy suul taxu ne nañ tasaare loolu ci at yee ci gannaaw am na ku def benn utruxa def ne dafay maanaam dafay ñaan ne maanaam xabru yonent bi dañ ko war a génnee ci jumaa ji te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax ne maa na bayna bayti wa minbari rawdu min riyaadil jannati xamna ne ci néeg boobu foofu xam na ne foofu lañ koy suul xamna ne foofu xamna ne foofu lañ koy suul yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne al imaanu yazaru ila al madinati kama tazaru al xayatu ila juhriha neena gëm yàlla da fay tàppeewu jëm ci Medina comme comme jaan ni mi tàppeewoo jëm néegam lolo tax baye mom ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wasallam masta tagok mom bu mané dem dana dem bu man ta dem tim mu ngi tew ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi motax mu ne ko la in shatta anni bil amin madaruhu fa mashhadu bil qalbi laysa bi sarifi la in azzani ruqya an nabi wa wisaaluhu faqad dama li tazkaaruhu wa khayaluhu wa in azzani madhun lahu wa sana'uhu faqad tayyamaani nuuruhu وجماله fa ziyaare yonent bu fekkee ne sori na fi ma dëkk muy Sénégal teewlu gi may teewlu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci sama xol masta tàggoog man moo tax dem na ba dëkk ak moom raytu rasulallahi jaada bi bugyati fa ma gaaba anni dahra barran wala bahra gis naa yonent bi sallallahu alayhi mu may ma li ma bëgg mooy tàggoowut ak man maa ngi ci géej ولا ما نجي جيري يننت بي تاغو تك مان موتاخ داف دان توك با ياغ مو نيك كاولاخ دو خام داخ في مدينه لا ولا كاولاخ لا لقد فاح لي من نشر احمد فائح فحرمني النوم دموع السوافح خيال سرى خيال سرى ام حل كولخ طيبه كولخ chamamtu arijal haachimi yi fa arriqu bàyyi toog ci Medina gi la toog ne man damay gént wala Tayba gee dafa mujj di Medina gi ndax man ne may xeñtoo yonent bu ma demee ci Medina am googu noon laa koy xeñtoo te maa ngi fi loolu dëgg ak mbëggeel gi moo ko waral ànd ak loolu yëpp du bàyyi mukk du bàyyi mukk di dem di bàggante jëm Medina lu tax nee na muraadu xajiijil baaxiraati jamiihim جنان وأزواج من الحور والخول وحسبي أرى شيئا رآه محمد وأنزل أرضا كان فيها وذاب جل bàyyi nee na ñiy dem di aji ñoom liñ bëgg mooy am àjjana man nag suma aj gi bu ma ci amutoon dara bu may dem naa ba gis foo xam ne xam naa ne fii la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon gis barab boo xam ne wax wër na ma ne yonent bi xool na barab bi ma xool foo xam ne yonent bi xool na ko ku àgg foofu ci mbëggeel bul foog ne mën naa neenal li yonent bi santaane ku dem ba àgg ci mbëggeel bëgg a def li nga xam ne boo ko defut doo am bàkkaat kon li nga xam ne boo ko defut danga am bàkkaat loolu moom waxi na faw mu def loolu lim dëggalee mbëggeel yonent bi mooy topp ko topp ko ci julli topp ko ci or top ko ci saraxé top ko ci jang alquran top ko ci teunku ci shariatu bi tonku top ko ci bëgg yalla top ko ci bëgg nit ñu baax ñi top ko ci def lu baax ci tedd lu bon waaye li xol nak moy mayé ki bëgg mom dana am lu mu bëgg ci ki mbeug mom rek moko xam mo ki mbeug lolu tax mu ngi makka waaye mu ngi naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ala ya rasulullahi eeyow yonent bi bàyyi nag yonent bi soriwu ko waaye bu ko neexee mu oo ko ooyi ku sori waaye soriwu ko ndax moom moo ne fii la dëkk xarisun ala ihda sana wal madaixi li bi man sugnaahu bayna al jawaanixi man maa xir ci yónnee tagg ak i wéy ci ki nga xam ne ci sama ci sama wàll gii la dëkk fii nag mu koy oo naan ko alaa yaa rasulallahi yow yonent bi waxut a rasulallahi dayo bi lay oo oowut barab bi waaye dayo bi lay oo màggaayi dayo moom lay moo sori loolu lay soril judli bi zawratin yàlla na ma may ma ziyaare la tuzilu biha karbi ziyaare boo xam ne danga ci dindi samay njàqare faqal bii sama xol taxawoo fa ragal na ida qabila ndam nangu na al maamuunu kay maamuun kay yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne waa Makka yi sax bañ gëm a gut tuddee nañ ko maamuun ndax Kaab bin Zuhayr ba muy tagg ba muy xas mbokka mi ne Aboubacar dugal na ko ci lislaam سقاك أبو بكر بكأس روية فأنهلك المأمون منها وعلك لوح te boobu dafa doon xas ab mbokkam mi dugg ci lislaam bu jéer ne ko abubakar moo la nàndal kaas bi maamun ñëw sungali la ci kon ñoom boobu ñoom tuddee nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne maamun ne ku óor la bàyyi ne bu maamun ki yonent bi nangoo ne man man bëkk néegam laa te ba dëde tasaaroo xaw fii sama ragal yépp inna nii naka man mudminul jafa aji saxoo laa tongo waaye bu ma yonent bi nangoo li ma yaakaaroon ne man ku saxoo tongoo laa njàqare doo dootu nekk ci man te waxoon na ne ci tagam yonentu alayka salaatullahi humma salaamuhu ataqbalu nii yaa mustafa alkawni an naam mooy tagg yonent bi ne ndax nangul nga ma mu ne peeb yonent bi nee na ma waaw nangu naa la وإني شعري مقبول وإني خديمه وإن كنت مقبولا تبين لي للعتق سما وين يونت نغونك نغونانا بكني جملا تسمى رجال بالخديم وإنني أسابقهم لا أن أساجلهم لا أنسني وأسابق أساجلهم ما عشت فيك وإن أمت yusaabium yusaabiqum yusaajiluum far'i wa fii ka yusaabiq nee na góor ñu bëri tuddee nañ seen bopp ne ñooy sa liggéeykat bari nañ lool bàyyi ne feeg maa ngi dund duma ma dëñ di rawanteeg ñooñu te waxoon na ne <coughs> bil qaridi fa innani jiddu saqimi du إذا قبل المأمون أني خدمه تبدد خوفي أنني مدمن الجفاء ñaar di ñaarel ñaarel diwan bi rek ñaarel qasida bi ci diwan bi kara الناس في سنة الكراء تمتعت منه الدهر إذ كنت مفردا وزوحمت في هذا الزمان وإنني لفي غيرة ممن يروم محمدا ولكنني جليت قبل سباقه مونا مونتي مونتي كورس بدودن وفي جوجيتيم دانا باي اي بانقاسام بانقاسي دومي سديك طالبي ñi dëggal ñi dëggal askanoom ci moom yépp ci bànqaas yi lañ waaye nee na lakinani jëllaytu qabla sibaaqihim man jiitu naa ci course bi njëkk course bi di commencé wa qad niltu tabriz al quruni li ahmada maa jot jiitu maas yépp nga ne ko fo jitu gele lolou mu ne loolu man momako sang beku mom yontu bi sallallahu alayhi wasallam mi sama sang mom mom ngëneel googu ndax karaamaay walu yàlla yep nak geneew lu ci mu'jiza yonentu bi sallallahu alayhi wasallam naka mu'jiza yonentu yépp jugeewut lu may ci mu'jiza yonentu bi sallallahu alayhi wasallam wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min albahri aw rashfan min ad addiyami wa kullu ayin ata rusulu lkiramu biha fa innama tasala min nuurihi bihimu yonentu yépp seen kaawteef yi liñ indi yépp ñi ko jëlé ci barke yonent bi karamatul awliyaa yi bay yépp batay ci mujise yonent bi la sallallahu alayhi wasallam yalla ko terale yonent ndax da fay dëggal ne ñi ñu dëggu lañ lu tax ñu dëggu dañu askanu ci yonent bi te yonent bi lim askanu lim oté dëgg la habibi sama soppe habibullah moy soppe bi yàlla bi wa huwa mom khaliluhum mooy kharitam اتخذ الله ابراهيم خليلا yàllaa jàpp ibrahima muy xalil yontu salaay salaam nee na man yàllaa ma jàpp muy xabib maqaamu xabib moo gën a foor maqaamu xalil xalil dafay ñaan ñu door koo may waj nub nii wa bani an naabudal asnaama la ñaan yàlla fegal ma maag samay njaboot ñi jaamu xërëm yi yonent bi yàllaa ko wax ne ko li yudhiba ankum rijsa ahlal beyt ibrahima moo ñaan wajaal li lisaana sidqin fi l axirin defal ma tagg ci ñu mujj yi yonent bi yàlla moko ko wax ne ko wa rafaana laka zikraka ñaanu ko yalla ko may yalla ko wax ne ko inna fatahna laka fathan mubinan li yaghfir laka allah ma taqaddama min dhanbika wa ma taaxara batay yalla ko ko may maqam habib mo gëna for khalil donte yonent bi khalil la habib la kalim la shakur la halim la mom la bàyyi di indi motax tax mu ne xabib sama soppi حبيب الله موي سوبيم يالا الله موي يونس يالله محمد صلى الله عليه وسلم وهو موم خليله باتاي موي خريتم وادركته فكناكو روحا موي روحو نك عيسى فكناكو موي كليم نك موسى ومختفا دي كون توب فكناكو موي شكور بولا نيهي شكور كوي اجي سانت واي بولا نيهي صاح fekk naa ko muy shakur niki ki alayhi salam ndax dañ wax ne nuux dañ ko tuddé shakur lutax tax maa labisa jadidan aw dhaqa taaman illa hamidallah motax ñu tuddé ko shakuran kon shakuran gi man na fi rek kuy sant kat ndax yonent bi sant kat la ndax daf doon julli ba ay tankami di néwi ba sayyidatuna aisha ne ko lutax ngay def li mune afala akunu abdan shakuran lutax ngay def li te yàlla baal na la sey bakkat yeb ما تقدم من وما تاخر من افلا اكون عبدا شكورا ندخ دوما نيك جام بوي سانت بوروم كوم شكور لا كو خامن دا فا سانت بوروم دونت وير نكو نكو بوروم بال نكو نانغول نكو ماي نكو با واخ نكو دانا لا ماي باغا دويل واي بولا نهي غنا شكورا كوم نوح من كوم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ñoo ñëpp bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam boole ne leen seeni jotaay haliman inna ibrahima la awahun ne ibrahima nekke halim yonentu bi kaana xaliman ashaddu nasi hulman hilman motax ba sayyidna umar fekke arabiy yi bu ñuy wax ne ndax kii mooy fenkat bi wax ne yàllaa ko yon sayyidna umar ne daf koy ray yonentu bi daf ne ko ala rislika al halim an yakuna nabiyan ku ku ku ku ku ku ku ku lewet tuti kon mu nek ab yonentou nga xamne hilmu ci xususiyaatil ambiyaa yi la bokk ke duaati ilallahi tabaraka wa taala ñi oote jëm ci yàlla dañ koo dañ koo soxla mustaxaasan muñ kuy xettalikoo koo xam ne nii dañ koy xettalikoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xettalikoo nañ ko ci àddina ci nekkam ci àddina waaye ni ngi koy xettalikoo ba léegi moo tax bi nga xam dafa ñëw di ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ne yaa xayra man dufinat bilqaa'i azumuhu فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم كوكو أعرابي بي دفع am koo xam ne mu ngi doon nelaw foofu at bi mu gis yonent bi sallallahu alayhi nga xamne dafa ñëwoon pour jéggelu yàlla yàlla jéggelul ko ci buntu bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bégal ko ne ko yàlla baal na ko ay bakatam beyti bi beyti yi mom ba légui Euh, euh, euh, muwaajaha bi ya fa nekkoon yu bëri jëlee nañ ko fi waaye ba léegi bayti yi moom ma nga fa ba ba fa yoon bu mujj xawma ma xaw ba juróom benn weer yi waaye ba ba yoon wu mujj bayti yi mu nga fa loolu pour wane ne yonent bi mustaxaas la ba léegi nit ñaa ngi jottalikoo ci moom di gis ay karaama yo xamne ni ken amul ken xamul num am Cheikh ibrahim radiyallahu anhu wax na ci bind na ben lettre Seydi Ali wax ko ne ko masta ñaan yàlla dara ci bunti yonent bi ci guddi gàmmu lu ma yàlla may na ko kon yonent bi ba léegi mustaxaasan wa maljian wéeruwaay la raufan rahiman koku mom yàlla ci bopam moko ko ko laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufur rahim ta rauf tur yàlla la rahim tur yàlla la waaye yàlla tabaraka wa taala moo tuddee yonent bi ne bil muminina raufun rahim ndax yàlla moom inna allaha bin naasi la raufun rahim waaye yonent bi la wax ne bil muminina raufun rahim xayru man taxannafa ku gën ci koo xam ne nii moo ci yoon wu jub bàyyi yoon wu dëng mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam hmm? loo teg wa awalu kulli muslimina xaqiqatan mooy njëlbeeni mbooleem jullit ñi ci dëgg-dëgg wa awalu man aada mooy ki njëkk a noonoo asharika aji bokkaale wa an nafa te tatal ci bokkaale ndax yàlla nee na ko qul inna salaati wa nusuki wa mahyaay ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يالنا نكون نيل سما جولي سماي جامو سما دوندو اك سما دي لب يالا كو نيال كو اغ فوفو كين اغوت سي دايو بوبو يونت بي صلى الله عليه وسلم اغ nga xamne yalla mom biram mom bitem mom dundam mom dem mom julleem mom ay jamom mom léppam motax kana kaana yazkuru ala kulli ahyanihi daf dan tudd yàlla ci mbolemi ci mbolem halami ci mbolem hal la don tudde yàlla motax bako yàlla ne waxal ne sama julli sama jamu sama dundu sama de sama borom moo ko moom ki yàlla rabbil alamin kay borom mbindéef yi laa sharika lahu bokkaale wu ma ko dara mu doo wane wa ana awwalul muslimina maay njëlbeeni julin ñi kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy njëlbeeni julin ñi mooy njëlbeeni julin yi ngir dayo fi mu ne desalut dara lum moom léppam yàllaa ko moom mooy njëlbeeni julin ñi ndax moo njëkk gëm ndax kii wax ne kuntu nabiyan wa aadamu bayna al maa'i wa tiini koku ba muy gëm yàlla bobu aadama mom amagut kon nabi aadama yi amaguñ bala qala fil mithaqi mo njëkk wax bala awwala burhatin ci njël be nak waxtu wa qalat kullu rusli kullun law ikhtafa law ikhtafa yonent yeb door ko wax ñom ñëpp mom lañ top fa atxaa imaam al mursalin mu mujj di seen imaam فتلك هم لولا لسان وذلك ممدوحي كينك موي كما يتق سما كوينة وتشرفا تا كوي اكترانغا مو نجك بلا تا يالا نين آمن رسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون دور كوخ yàlla ne woon na yonentu yi wa id axada allahu mithaqa annabiyina lama ateytukum min kitabin wa xikmatin ma jaakum rasulu musaddiqan lima maakum la tuuminunna bihi wa la tansurunna qaala aqrartum wa axadtum ala dalikum isri qaalu aqrarna qaala fashhadu wa ana maakum min ashahidin yonentu yépp yàlla jël na ci ñoom kóllëre ne buñ dajeeg yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam danañ ko gëm danañ ko dëggal danañ ko dimbale mane ne dimbale bi mooy lan dimbale bi mooy topp yoonam ndax moom yàlla doy na ko ndimbal waaye bu ko yàlla waxee ne walay ayyadaka bi nasrihi wa bil muminina yàlla la dimbalee ci ndimbalam moom yàlla dimbalee la way gëm yi mooy ñu topp yoon yi yonent bi sallallahu alayhi wa bu fekkee yàllaa ngi wax ne ndimbali yàlla in tansurullaha yansurkum te yàlla soxlawul ndimbal ndimbal yàlla mooy nga topp li yàlla bëgg mooy dimbale shariat bi mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dimbale yonent bi ci mooy nga topp yonent yëpp yàlla jël na ci ñoom kóllëre na bu ñu dajeeg bi dañ ko dëggal dañ ko gëm dañ ko dimbale yàlla ne ndax nangu ngeen ñoom ñëpp ñu ne nangu nañ yàlla jël seen kóllëre ci loolu yàlla ne seede leen maa ngi ànd ak yéen ci seede loolu kooku kon mooy ilimaan yi yonent yëpp mooy seen njiit te ilimaan googu yàlla dëggal na ko ci isra ba nga xamee ne daje naag yonentu yépp mu jiite leen pour saxal ba tey ne moom mooy seen njiit lahul aayu lahu ñeel na ko al aayu ay aaya muy alquran tabqa aayu jamu aayatun tabqa dafay des البصيري وقت دامت لدينا فاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدمي يننتي نم نب سيني كاوتيف يالا جوخنا كو يننتي على محمد صلى الله عليه وسلم كم نيغا خامينه باي دا وكلهم بحر من العلم داخل وكل لدى بحر الامين غدير باي نينا نيوم اي اي اي اي géej gi xam-xam lañ yoo xam ne mu ngi ay duusam yu ngi dóor waaye ñoom ñëpp boo leen xiyaasee ci géej ak yonent bi dañoo mel ay xond xond moo tax mu waxoon ne alima ala albahri almuhiiti wa tatruka sawaqiya la tujdi zamaan liman shaka ngella dem leen ci océan bi mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te bàyyi yi nga xam man ta aji aji aji mar balen leen xond xond yi dem leen ci baxrul muxiit bi mooy yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom nga xam ne bàyyi tagg na ko feneen ne bihi rusdu wal aqtaabu haamu wa urshidu mooy ki nga xam ne yonentu yeeg xutbu yeeg ñoom ñëpp moom lañ bëggoon yàlla jubal leen waqad taraku min baadi da baxrahu rahwa waaye jugee nañ fi bàyyi géejam googu mu nekk géej goo xam ba léegi mu ngi dal turkil bahra rahwan géej danaa nekk te fekk dalut bu boobaa du neex a géej ak yonent bi bàyyi mu ne ba léegi mu fi sallallahu alayhi wa te mu ngi dal bu la neexee aji feey mu feey bu neexee aji naan mu naan boo buggee lab labal moo gën a baax sax lahul ay kaawteefam dafay des yonent yëpp seen kaawteef dem doon ñëw di dem ay kaawteefi Muusa bëri na da koy dégg rek xetam baag jaan baag amul fenn foo ko mën a gisee tey tey kaawteefi Isa dekkal way deeñi kaawteefi Ibrahima kaawteef yooyu yëpp dem nañ ànd ak ne kaawteef yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa am na ko ba pare nag yàlla bàyyeel ko kaawteef bi nga xam ne nii mooy alquran ñaate ñaata junney kaawteef la alquran mën na juróom benn junney aaya te ñetti aaya ju nekk mucjisa la ñetti aaya ju nekk naa ataynaaka al kawsara mucjisa la kenn mënu koo wax kenn mënta wax ci arab lu fasaaxee noonu kawtef yi ñi fi jaaroon seen kawtef yàlla daf leen di defal kawtef seen nit yi jamono lañ gën a soxla nit yi Moussa njabar rek soppi bëri yooyu lañ manoon yàlla may Moussa kawtef bi nga xam ne nod na saxaratu firawna Isa docteur moo doon seen mbir yàlla may Isa moom muy dekkal ay néew di waxloo ay muuma di gisloo ay gumba yonent yàlla Muhammad nag sallallahu alayhi wa arab wax lu fasaha rek mom lañ bëgg amna ci ño xamne alquran gëme wuñ ko lu may fasaaxaam gi amna ku dégg fasda bi ma tumar wa arid an al mushrikeen musujud sujjóot xamne li ne du waxi nit utba te dégg nga ko ba wax ak yonent bi bam del se dafa ne lima dégg du waxi nit ñi ne ko njabar na la mu ne du njabar wéykat la mu ne du way ndax man na xamna hazaj xamna basit xamna tawil xamna wafir li du way wax la jo xamne suuf si am na am na ren am na meññet loolu yëpp ci xam wax ju baax rek ci lañ xamee wax yonent bi sallallahu alayhi wa ànd ak ñoom liñ xam-xam wax masu ñoo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa li muy wax nii wax ji jaarut yoon kenn ci ñoom masu koo wax ñi gën a saay-saay tey ñi ñi ngi fonk wëy ñii fonk wesar alquran wesar la boo xam ne ku nekk xam ne ne du wëy ndax wa maa allamnaahu shi'ra wama yanbaghi lahu way leg leg yàlla duggal ci tabaxal ci ay baat yo xamne da fay tollu way fek duhut way mu am fasaaxa boo xamne arab masuko am te ci sen bir la juddo mbayna lahul ayu tabqa akhir ad-dahr ta ànd ak lolu yeb mu'jiza al-quran neku rek ci fasaha baat yi mu'jiza al-quran mo ngi nek ci tim al-quran da wax dara taarix ñëw weddi ko alquran mas ta wax dara xam-xam weddi ko nit mooy dégg ci mooy wax déggam ci alquran taarix weddi déggam boobu waaye alxuraan taarix masu ko weddi xam-xam masta wax lu alxuraan di weddi borom xam-xam ju nekk am na lu muy gindeekoo ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wax ne naa ali dafa laaj yonent bi ndax fitna dana am mu ne ko fitna dana am bu fitna amee nu ñuy def mu nekk ko jàpp leen ci téere bi yàlla bi bu nga xam ne buum gii mu ngi ci loxol yàlla buum gii mu ngi ci seen loxo mooy téere bi nga xam ne du ràpp mukk ngir yàggee jàng waaw musique bi dafa sàppi ñi ko gën a bëgg ñoo koy wax alxuraan duñ ko jàng mu bam sàppi ñi ko gën a bëgg ñoo ci gën a ñoo koy gën a mar bët bu set Cheikh Ibrahima radiallahu anhu moom mi nga xam ne ci commencement am ndax ca fanweeri atam ci la waxoon ne yàlla jox na ma ñaari sëriñ sama sëriñ ci mooy alxuraan manam chariatu muhammadiya mom la top li nga xamne ni mang koy jeriño ci batin sama serigne muy Cheikh Tidiane di tagali ko man alquran bi nga xamne mune moy sama serigne ci zahir neku ci kaw suuf ko xamne moma gëna deg téré bobu neku ci kaw suuf dem na ba bay mu jëg dundam imam hasan neena baye neena ko buma ma dundaatoon danaa firiyaat alquran ndax amna ci ay deg yu bes motax li yonnabi sallallahu alayhi wasallam waxne alquran borom xam-xam yi duñ ci suur du ràbbu ngir njàgg kee jàng mooy bi nga xam ne ah, jinne yi bañ ko déggee mënuñ lu may ñu wax ne inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi gis nañ alquran ju xéeme boo xam ne dafay juble jëm ci njub njigam ko bokk na ci mojisal alquran njub gi nga xam ne ci lay juble bokk na ci njubal alquran na nga xamee ne noonu lay nooy lay xol la yàlla wax ne law anzalna hada alqurana ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min xashyatillaahi comme mën naa def doj noonu moo tax da nga gis xol boo xam ne xol bu dëgër la ba mel ni xoli Seydina Omar mi jàng surat Taaha Rahman mu ne téere bi il faut mu gis ko rakkam ne ko doo ko gis ndax yow laabuloo il faut nga laab mu door koo jàng la nooyal xoli Omar boobu nga xam dafa meloon di doj alquran jooju nga xam ne la yàlla wax ne buñ ko wàcce woon ci doj mu nooy moo man naa bokk na ci lii saafara saafara euh, euh, saafara xol yi <coughs> bàyyi ne ndax danga nga gis min al aayi maa yabqa ka aayaayi Mustafa ndax nga gis ci kaawteef yu kaawteef bu des ni kaawteef yu yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa am na benn xutba bu mu def mu ne bi Senghor sax nee na ma néegam alquran a nga fa weñ yaa ngi koy jàng ñëpp a ngi koy jàng téere yaa ngi koy jàng euh, fi mu ne nii téléphone boo gis ci téléphone yi rek من القرآن أنت لولي يبكر دجال لي الله وحي نبي من صلى الله عليه وسلم نا دنا قرد القرآن إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نواجه القرآن نوكي قرد ينن تيري سن تيري يلا بعثوا إحنا يوم نوكي قرد بما استحفظوا بمن كتاب بما استحفظوا من كتاب الله لين يلا قرد لو يوم لا يلا قرد لو سن تيري تيري بدم القرآن نجي يلا كو قرد البحوم كم بعتق لا يبولي تسرين داري نيجا كم ñoo fi ëpp coono te amuñ fay sëriñ daara buy fayeeku million amagut bu yëf yi baaxoon dañ ci àgg bu yëf yi baaxoon sëñ daara dana am million sëñ daara dana am 4-4 teñ bàyyi bu bu sëñ daara yi sonnee ba taril xale yi ñu jël seen xaalis bi di ko séddale ci kanam nit ñi na ñëpp d'accord ne bu sëriñ daara tarilitee dañuy jël xaalis bi jox ko sëriñ daara ba jox ko daara ja waaye bàjjen ji nijaay ji eh, eh, ku nekk am ca loolu daal دفنا أنا بني موسى دان كوباي فذا ذكره باين تدوي من القرآن نهي الله نعنا يوم تبي وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون القرآن بكون تقرأ القرآن ذكر الله بي دان يوحنا كسرة الأسماء تدل على شرف المسمى القرآن أمن لومات جرون فكي تور أغنانغام waaye turam yi gën a siiw mooy alquran ak furqaan bàyyi na ñaari tur yooyu gën a siiw moom la jaam bu xam boromam soxla mooy alquran am na ñoo xam ne dañ koo jëree ci xara bi firi jàng bàyyi na buñ ko jëree ci xar u bi firi boole jëree furqaan ci farqu bi firi tàggale jaam bi dafa war a jeex ci yàlla ba du mën a ba du mën a tasawur nekk ak leneen lu may yàlla mu ànd ak teggini péeb yàlla bi ba jox ma demba xaqam ma sàmba xaqam jox julli yi xaqam jox oor yi xaqam moom bakkanam topp yooni yoon ci àl muhammad sallallahu alayhi wasallam bàyyi na bu boobaa boole na ñaari turi alquran yi gën a màgg mooy alquran buñ ko jëlee ci xar u buy firi boole ak furqaan bi nga xam ne mooy firi tàggale téere bi nga xam ne ragal gi mu ngi ànd ak moom ci dappet ndax ragal gi yàlla dimbale yonent bi sallallahu alayhi wasallam surtout bi rox bi masirati shahrin bàyyi nee na loolu moo tere noonu lislaam yi faagaagal jullit ñi loolu mu ngi ànd ak alquran di ko wëttu bàyyi na naka nga gisee jamul xajiji mboolooy xujaaji ala safa ci kaw safa ak marwa loolu it muy li nga xam ne dafay tegtale dalailu laa laa tulfa li xayri nabiyina ay tegtal yu wér yoo xam ne kenn du ko fekk mu ñeexal keneen ku may yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi xalqin wa xuluqin indahu fa mu bari xadañ na xafaa abatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla matal na ko ci bind nga xam ne ku xamut lu may bindab doomi aadama bu mat rek boo gisee da gis nit ku mat ku taaru koo xam ne kuy bëgg lu taaru da nga ko bëgg te nit ñi yàlla def leen a bindee bëgg lu taaru yàlla taaralal ko cosaanam taara tànnal ko baay tànnal ko ay ndey ibnu abbas ne limal naa yonent bi sallallahu alayhi nday ak baay yoo xam ne masuñoo jaar ci njaalo yàlla tànnal na ko ruxumi jigéen yu mu war a jaar tànnal ko ndigg góor yi war a jógee wa taqallubaka fi saajidina tànnal ko cosaan bu wér xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam turi baayam bi sax siiwut ci jamono jooju Abdullahi la tudd siiwut ci jamono jooju yàlla tànnal baayam fegu gi mu ko fegal ba nga xam ne ndaw si ko gis gis leer yoon ci moom di ko sàkku lu mu koy wax ama alxaraamu fal mamaatu dunahu alxillu laa xilla ba astabiinahu fa kayfa bil amri alladi alxurru yaxmi irdahu wa diinahu fa kayfa bil amri alladi tabgiinahu def lu xaraam daal dee sax ko tane ku dem ba emale def lu xaraam ak dee te kooku boobu duut ab yonent loolu da nga gis ne ci irxaasaatu nubu wala bokk ndax li yàlla xadoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam la comme lu xaraam dee ko gën te li nga may oo xalaalut daganut ba ma mën a koo def te as gor dafay dafay dafay dafay sàmm deram kon daal yow li ngay sàkku mënta nekk lolu ci xadu gi yalla ay xadul yonantu bi sallallahu alayhi wasallam tanal ko baladul haram muy makka tanal ko muhajirahu muy medina nga xamne mihrabam bi neena ala turatin min tur'atil jannati mun ci kaw géej ci geej aljanna diggante negam ak rawdam bi mun ci aljanna amut dëkk bu sellee ni madinatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam fenn yàlla lu nekk la ca gën la tànnal yonent bi bu makk gënoon yàlla du tànnal du du toxal mukk yonent bi yóbbu ko medina yooli màkk yi yooli màkk la dëkk gi yonent bi dëkk yi medina loolu jagleeg medina la yàllaa ko jagleel medina medina nga xam ne ñu doon hijra jëm fa nit hijra na jëm medina te àggut rey boppam ci yoon wi yàlla baxal ko ngir ne dafa gàddoo pour jëm ci Medinatul Munawwara jàngal ci saxiix muslim danga fekk mu indi xadiis yi baabu qaatili nafsihi laa yukaffaru ku rey boppam du tax ñu ne xéeféer la def na bàkkaat bu mag nag ndax rey sa bopp moom bàkkaat bu garaaw la waaye imaam muslim ba muy indi tegtal ci loolu dafa indi saxaabi bi nga xam ne dafa ànd ak saxaaba di gàddaay jëm Medina biñ demee ba ci yoon wi siburu dal ko munta muñ mu dagg barajima yadihi dagg siddi te eh, loxoom bi maanaam mu xaru dee ba mu dee nag saxaabi yi bi mu àndoon nag yàlla wan ko ko ci gént gént gi nga xam ne du gént benn waaye gént saxaabi yu la gént guñ nettali yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam mu wax ca lam ca wax saxaabi bi nettali yonent bi ki mu àndoon nag di gàddaay ne bañ ba ci yoon wi daal feebar daf koo dab munta muñ feebar bi xaru na rey na boppam waaye daf koo gis ci nelaw nag ne yàlla def ak yow mu ne ko yàlla baal na ma ngir gàddaay gi ma gàddaayoon jëm Medina agut de yàlla daf maa baal ngir na maa gàddaayoon jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah waa ji mu ne maa ngi gis mu ngi muur loxoom bi ma ne ko sa loxo bi nga muur nag mu ne ma loxo bi daal yàlla daf ne ma comme loxo bi yaa ko dagal sa bopp defaral ko sa bopp waaw ba saxaabi ne teel yonent bi xadis ji yonent bi ne allahumma wali yadayhi faxfir yàlla baxalal loxoom yi allahumma wali yadayhi faxfir lu muy firi mooy ne yàlla baxaloon na li ci des yàlla baxalal loxo yi te kooku daf doon gàddaay jëm Medina àggut Medina mu rey boppam moo tax dara amul noonu dalailuka shamsi bi xalqin wa xulqin ci jikko ci bind kullul kamaali wa jumlatul jamaali moom la yàlla booleel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax xasaan wax ne wa axsanu minka lam taraqattu ayni wa ajmalu minka lam talidi nisaau xuliqta mubarraan min kulli aybin ka annaka qad xuliqta kama tashaau yàlla def na mu bind ko xasaan nañu dàq way waaye man bu ma wax damay wax ne ka qad xuliqta kama yashaau yàlla la bind ni ko neexee moom yàlla rek mbind bi jëmmam dafa mat dara manqué wu ci yàlla may ko nag jikko bi nga xam ne yàllaa ko tagg da nga koo innaka la ala xuluqin azim nga xam ne jikko jooju rek ñu bëri jikko boobu rek moo leen àggale ci lislaam loolu rek doy na ci wax ku ni moom ku yaroo ni moom ku muñee ni moom ku maanoo ni moom ku bëggee yàlla ni moom ku ragalee ni yàlla ni moom ku dalee ni moom ku amee kóllëre ni moom ku jàmbaaree ni moom amut ci benn mindeef boo xam ne mbindeef yàlla la ku doyloo ni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam amut fenn koo xam ne wa raawadatu jibaalu shumma min dahabin an nafsihi fa araaha ayyama shamami wan nañ ko sax doj yi pour defal ko ko or waaye dëddu na walis loolu ndax xoolut jëm ci àddina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alal ju bëri ñëw na këram mu tëdd ba guddi fàttaliku ne am na lu ci des mu oo Bilaal ne ko tàggale ma lii tàggale ma ak lii nit baax na ba sonn waaye àggut foofu nit baax na ba sonn waaye àggut ci nekk ak yonent bi sallallahu alayhi mu am saxaaba yoo xam ne ay milliardaire lañ yàllaa leen feesalal muy tegale ñaari weer yoo xam ne saxaaba yi ne doo fekk ci néeg yonent bi loo xam ne fees na bi laal ci lekk loo xam ne euh, poqataani Bilaal sax attan na ñaari weer yoo xam ne duñ taal ñaari weer yoo xam ne duñ taal tàndarma rek ak ndox te moo tax yàlla bind lim bind yëpp jëlalee loolu waaye mu ngi am ay saxaaba yoo xam ne ñu ngi fees ak xaalis te yàkkamtiwuñ lu may mën a leen def leen nangam waaye yonent bi xoolul jëm ci ci li nit ñi amee xoolul jëmay lu may nga xam ne moom la moom ame ku bëggee yàlla ni yonent bi amut ku bëggee jaam yi ni yonent bi amut ku yërëmee jaam yi ni yonent bi amut sallallahu alayhi wa sallam ku maandoo moom amut ku tabee ni moom amut ku mayee ba doo desal dara amut moo tax bàyyi doon ko roy ne wa nunfiqu laa nuqi nuridu siratahu ñun de dañuy dundale ba du dara du des daana def loolu dem ba amul dépasse ñu may ko ay million mu maye mu ne loolu yëpp ma koy def rek ngir bëgg wér ne ma topp naa ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi dañ doon aj ngir topp ko di julli ngir topp ko di oor ngir topp ko di teet yu ñaaw yi ngir topp ko di yërëm jaam yi ngir topp ko ku la gën a baax mooy ku la gën a jël ci jikko yonent bi sallallahu alayhi moo tax bàyyi man naw naa jullit bu nekk waaye sama naweel ci ñoom mu ngi am ci kenn niñ doonnoo ci yonent bi ku ci ëppalee daal lu mu doonnoo ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam laa gën a naw kuy xool jikko wala ngay xool bind bu matee ni mu bindam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak jikko yu mel ni jikko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi nga xam ne dëgg-dëgg dara nëbbatowu ci ñeexal ab noon walla ñeexal ab xarit ndax xam nga ne Abu Sufyaan bañ koy laaj ndax mas naa fen mu ne du fen boobu noonu la woon ndax dana xuruj mu ne du xuruj boobu noonu la woon lu mu leen di digal mu ngi ñuy digal fegu ak julli ak wax dëgg ak saraxe ak jokku mbokk lii ba tey ba xalaatikat xalaatkat di am ci àddina ba léegi xalaatkat yëpp masuñoo dëñ di wax ne jikko yi jikko yu baax la waaye am noonam moo saxaloon loolu bàyyi ne ay tegtal la yoo xam ne dafa mel ni jant bu leer na buur ñeyal kenn xanaa koo xam ne euh, gisuloo naka Ummu Jamil ba nga xamee dafa ñëw di seet yonent bi tamat koo gis ñu ne ko ah Ummu Jamil gisuloo mu ne naka la may gisee silmaxaay xol bi maanaa du gis jant ñoo nga xam ne seen seen seen seen seen seen jàngoro amut amut saafara bayne waxuma la yonent bi sallallahu alayhi wasallam way waaye ñëwal ci ñim yar aruni ka al atiq wan man wan len ma ku melni atiq atiq bakkar siddiq mi nga xamne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena jant timut ku abou abubakrin yonent bi neena ma maa abou abubakrin bi kasrati salati wala bi kasrati siyaamihi walakin bi cheyin waqara fi qalbihi abubakar gëneewu leen julli yu bari te ku mën julli la gëneewu leen yu bari te ku mën or la waye bi shay'in waqara fi qalbihi moy gëm yàlla am gi moy mbëggeel yonnte bi sallallahu alayhi wasallam moy olu gim olu yàlla ba nga xamee ne waa Màkkaa ngi werante yonnte bi dem na baytul maqdis ñëw ñu ne Abubakar fi gën gëm waaye loolu du ko dëggal mu ne bu fekkee moo wax dëgg la ndax tukki fii ak baytul maqdis ay ñaari weer rek la waaye fukki dem ba ci asamaan yi nga xam ay junne ji at la kii koo xam ne dama koy dëggal ci xabaari asamaan bu ma waxee fii ak baytul maqdis ma gëm ko yonent bi ma ne naa dem naa asamaan sax ñëw ci lañ ko tuddee siddiq kon kooku ana ku mel ni abubakar siddiq bi nga xam ne ba yoontu bi ootee dundale seydna omar dafa wax ne luñ ootee abubakar man ma waaye tey de ma man man de tey su ma genn wàll alal gi laay yóbbu jàpp na ne kenn du indi loolu ba mu ñëwee fekk na Aboubacar li mu am yëpp ci alal moom la indi yonent na ne ko koo koy bàyyee sa njaboot mu ne ko bàyyee naa leen yàlla ak yonentam bàyyee naa leen yàlla ak yonentam te jubluwut yoon mu dee yonent bi di amee waa këram de bàyyee naa leen yàlla ak yonentam mu ne dootuma dootuma dootuma dootuma rawanteeg Aboubacrine Seydina Amar ci jamono Aboubacrine Siddiq dafa am benn màggat bu nekkoon Madina Munawara moo xam ne dafa tëlee lottu amut pour amee bés bu xëyee di ñëw di seet si màggat bi lu mu soxla bu ñëwee dana fekk li soxla yëpp defal nañ ko mu ne man daal tey danaa teel a xëy ba xam ku may jiitu ci mbaax gi kan mu xëy rond gis Seydina Aboubacar mooy génn ci boobu teg boobu nag moom mooy amee xilaafatul muslimin mooy xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa waaye mu ngi tal màggat moo xam ne parce que yoolam yàlla la bëgg am na ñu ko defal am na kum fay mu mën koo def waaye ñoom dañoo jàpp ne ay jaam yàlla lañ dañoo jàpp ne ay jaam yàlla lañ naka yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf daan liggéeyal jaam yi ak ku mel ni kaman gada defe naa mool bi ñu mool noonu li li li mukkaani la def siraajan li sukkaanil ula dañ yàq baat boobu ñu defar ko siraajan li sukkaanil ula mën taxannafa ana kan moo mel ni ki nga xam ne mooy leer ak ñooñ aljanna muy Seydina Omar nga xam ne xadis yi bàyyi ngi wax ne yonent bi ba ko Seydina Xasan seydna ali yónni leen ci seydna amar mu jox leen addiyam ñi béggal ko ci xadis jooju ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne abu bakar amar ibn xataab mooy siraaju ahli jannati mu ne amar ibn xataab dénkaane ne nañ ko suulaa ak léegi loolu bañ ko suulee kayit génn ne xasan ak xuseyn wax nañ dëgg jëlee nañ ci seen baay wax na dëgg jëlee nañ ci sang mindee fi mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax na dëgg ne seydna amar mooy siraaju ahli jannati xam nga am na koo xam ne léegi loolu mën na koo xool rek mu jaaxal ko te léegi na ne lampe bi mooy leeral mbaar mi lampe bi leeral mbaar mi Seydina mbaar mi jumtukaay bu yàlla jëfandikoo ci teraanga ki nga xam ne man taxallafa wutu na yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ndax Seydina Omar Aboubacar la njëkk tuddee xalifatu rasulillah sallallahu سيدنا عمر نيكاي واخ خليفه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم غيس نه لول غودنا مو ني مو ني امير المؤمنين باي نه ندخ امنا عبقري كسراج ندخ امنا عبقري بو ملني سيدنا عمر بيغا خامني موي سراج اهل الجنه عبقري بو باي دي واخ جوغي كوم عبقري Abbas Mahmoud Akkad nga xamne ay abqari abqariyatu Muhammad abqariyatu Omar abqariyatu Nangam deret baat bi ci wax yonentou bi sallallahu alayhi wasallam lako jele nda abqar abqariyu moy haziq manam ku ñaw ku xéwénal dara sëy sanu ko tubaab yi wax jeni wala jeni ko xamne manam fini ñi jaar jaaru fa ba pare mu man li ñi mënut nit ñi jàng école ba sonn mu ñëw jàng ñaari baat ba pare di rawanteeg ñi jàng école bu ko defee ku mel ni Abbas Mahmoud Aqad moom abqar yi la loolu tax mu bugg abqar yi ndax moom ibtidaay rek la am ba pare décatéré yi ñoo doon dajee këram mu nekk seen docteur di leen jàngal waaye mu ne abqar yi bi bàyyi wax ci Seydina Omar melut ni moom téereem yooyu mu bind ab xari yu fulaan ab xari yu fulaan ndax ab xari boobu ci nite rek la am waaye ab xari bii bàyyi nga ko jëlee ci xadiis yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moo melal Omar ne gisuma walam ara ab xariyan yëfri fariyahu ndax yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne dafa gént dafa gént maanaam xilaafa lay melal dafa gis teen teen bu mag bu bari ndox mu gis Seydina Aboubacrin di root ci teen bi ci ay baag waaye zanub du baag bu mag mu ne fa taxawala fi yadihi garban baag boobu mu mujj nekk baag gis mooy baag bu fees dell muy muy xacc muy xacc ndox mi mu ne ma gis ci ci génneem wa fi nazihi doafun mu ne ci root bi Abubakar doon root gis na ne daal euh, duud root bu dëgër noonu فغفر الله allaahu lahu yàlla jéggal ko maanaam xilaafa abu bakrin lay wax waxut ñàkk pas-pasam waxut ñàkk dëgëram ndax xam nga ne abu bakrin saddiq waxtu woo xamee ne am na am na taxawaay yoo xam nit ñi dañoo miin na seydna omar ki dëgër waaye am na taxawaay yoo xam ne xaarat fa waqafa abu bakrin waqfata rajulin ndax bañ na yonent bi sallallahu alayhi wa دينا سيدنا عمر لو واخ داف نه لولو كوكو واختي ما دغ سبب سيدنا ابو بكر مو ген نمن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت كودون جام محمد محمد موم دينا كودون جام يالا نك فان الله حي لا يموت جانغ ايجي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين dégg nga ba jàng ne fa in maata aw qutila bu deexee mbaa ñaray ko wa ma muhammadu illa rasulun qad xala min qablihi rusulu afa in maata aw qutila yàlla wax ne muhammad yonentu la yonentu jiitoon na ñeel bu deexee mbaa ñaray ko seydna omar mu mel ni mu ne aaya ji mu ngi mel ni mu ngi door a wàcc foofu naa Omar jaaxle na ba xamut fu mu nekk ba wax ne ku wax ne yonent bi dee na ma la Abubakar taxaw ne yonent bi kay dee na yonent bi dee na jublu ci oyofal comme ni yenn ñi di wax ndax ba yonent bi bañ ko tëralee moom Abubakar ñëw na muri ko ne ko tibta hayyan wa mayitan yaa teey ci dund yaa teey ci dee Abubakar keroog ba nga xamee ne taxaw na pour xeex ak murtaddiin yi Seydina Omar jàpputoon ne loolu lu war a am la waaye Aboubacar moo taxaw ne képp ku fasale julli ak asaka man danaa xeex ak yow Seydina Omar door a xam ne li yàlla leeral xoli Aboubacar loolu mooy dëgg kon Aboubacar ku dëgër la te Aboubacar moo gën Omar ci dëppoo yi ahlu sunna waaye yonentu bi bi muy wax nii seen xilaafa la doon junju mu ne Aboubacar root root tuuti mu ne ma gis ci rootam ak xoyof mu ne Seydina Omar nag jël baag bi fastahala fi yadihi xarban Aboubacar moom ay zanub la doon rootee mu ne ma gis ne baag bi mujj na nekk baagab gis bu mag ci loxo Seydina Omar mu ne falam ara abqariyan yafri faryahu gisuma abqari ku xereñ ku melni ni kuy def ni omar defé hatta daraba annaasu bi atanin manam ba ba hukuma islamiyya istatabal amnu nit ñi dal ndax xam nga ne at yim def ci khilafam mo gëna bari li xew ci khilafam mo gëna bari futuhati mo gëna bari diwan yim def yim beesal ci jamonoom lolu yep la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon junju ma kon bay fa hal abqariyun kasiraji juhud jugeewut ci kom abqari umar abqari usman waye ci waxi yonent yal muhammad sallallahu alayhi wa sallam la jugge moy abqari yu ndax amna ku xereñ ba melni siraju li janna bàyyi ne muy sayyidna umar abqari yu nag ci bati arab sax ci shuaraaw yi ñoom dañ doon wax ne dafa am ben qur bo xamne mom lañ tuddé wadi abqar quri quri xuri jinne la bo xamne ne mo fa dëkk manam bala nga way sax manam ñoo ñolay ñolay sol ñolay ñolay ñolay may wax yu sheytane nga nga mëna wax waye lima bëgg wax moy ne baat bi baye wax nonu ci sunnatu muhammad lako jëlé ndax yantu bi sallallahu alayhi wasallam mo junj khilafa umar ne fahal abqariyun kasiraj wal tara wal tara ndax danga nga gis li Ousmane ñeel Ousmane shaklan ndend ndax danga gis ku mel ni Ousmane mi nga xam ne wax nañ ne aman wa qaanitun ana alleyli saajidan wa qaaiman yaxdaru alaxirata weer yarju rahmata rabbi ci Seydina Ousmane la wàcc Seydina Ousmane moom mu nga xam ne moom la yàlla may moom kenn ku yàlla masa booleel ñaari doomi yonentu te ñaari doomi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam may na ko doomam roqiyatu ak ummu kalsoom may ko roqiyatu mu génn àddina mu may ko ummu kalsoom loolu Seydina Ousmane la ko yàlla ma dafa waleeg Seydina Ousmane mi nga xam ne yonent bi dafa wax ci moom ne ndax du ma rus Ousmane mi nga xam ne malaaka yi dañ koo rus Seydina Ousmane mi nga xam ne nee nañ ci xàqam la waa ci aman wa qaanitun ana alleyli saajidan wa qaaiman yaxdaru alaxirata wa yarju rahmata rabbi ne daf daan naafilaay alquran yépp ba mu jeex ba ko fekk na kaamil bi nga xam ne moom la doon jàngee fa sayakfikahumullahu samiun alim ci la daanu mu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mu ngi oor yonent bi ne ko ndax dangay dogee si ci man moo tax bëgg Seydina Ali ñaanee pour ñu dimbale ko moom sàkkuur ndimbal boobu duñ dugg ci wax jooju wax ji eh, eh, taarix wi gudd la waaye ana ku mel ni Seydina Ousmane ana ku mel ni Seydina Ousmane mi nga xam ne moom moo boole moo bindaat alquran ndax xam nga ne Seydina Aboubacar Siddiq moo bind alquran ñi def ko muy benn kaamil ci mu oote euh, abi xudaymata ci jamono seydna Ousmane nag xudayfatul yamaani bi nga xamee ne jullit ñi dañoo nekk ci xare ñi commencé di werante ci aaya euh, baati nangam nii lañ koy jàngee baati nangam nii lañ koy jàngee ñu commencé werante ci loolu moom mu ñëw ne seydna Ousmane na nga na nga dabaatal umma bi bala ñoo werante ci alquran di leen tasaare te loolu commencé woon nañ ko ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax Seydina Omar am na ku mu dégg mu jàng benn aaya ci suratul furqaan mu pañe ko ne ko foo jëlee lii mu ne ko yonent ma ko jàngal mu ne ko nañ dem ci yonent bi sallallahu ñi dem ci yonent mu jàng ko yonent bi ne hakaza unzila unzila alqur'ana ala sab'ati ahrufin ay ay ayyi ayyiha shi'tum wala tumaaru fihi yàlla wàccee ne alquran ci juróom ñaari xaraf jàngee leen bu leen ci neexee maan fekk yi ngay jàng am na am am am am na sukkandikuwaay te bu leen ci werante waaye ci jamono Aboubacar moo bindulu moo bindulu kaamil bi te loolu Seydina Omar moo ñëw ci moom gannaaw bu nga xamee ne ñi nga xam ne dee nañ ci euh, ci ci xarbu euh, euh, ridda lu mat sabiina ñoo xam ne ci xufaas yi lañ bokkoon te bindu ñoon kaamil bi mu fexe ba bindulu ko kaamil boobu des ci Seydina Omar gannaawam mu des ci xafsatu doomam ba ci jamono Seydina Ousmane ba jullit ñi di werante nag ci jàng alquran te fekk ñu ngi ci xaswa nga xam ne ñu ngi war a jàkkaarloo songook seeni noonu ñoom ci seen bopp ñuy xeex kooku ne Seydina Ousmane dabaatalal jullit ñi bala ñoo utee ci alquran di leen indil néew doole wala tanaaza'u fa tafshalu wa tadhhaba riihukum la yàlla wax Seydina Ousmane ci la oote xufaas yi ñi nga xam ne ñoo bindoon alquran ñoo loon alquran jël Zayd ibn Thabit jiital ko ci ñoom ne euh, buñ uutee ci dara nag نانكو بيندي سي لغه قريشي نده القران سي لغه قريش لواتي ني بيندات كامل بي ديف كو جوروم نياري نسخه مو يوني بن سي مدينه منوره بن سي بن سي مكه بن سي كوفه بن سي بصره بن سي يمن بن بن سي شام nga xamne ba legi bo deme sidna al-husayn ci qahira da nga fek sidna al-usman kamil usman bi lolo tax ñi wax euh mushaf al-usmani kon euh, ku mel ni Seydina Ousmane loolu la bàyyi di laaj. man naw naa jullit bu nekk waaye sama naweel ci ñoom mu ngi em ci kenn niñ doonnoo ci yonent bi ku ci ëppalee daal lu mu doonnoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku naw kuy xool jikko wala ngay xool bind bu matee ni bindam yonent yàlla Muhammad sallallahu ak jikko yu mel ni jikko yonent yàlla Muhammad nga xam ne dëgg-dëgg dara nëbbatowu ci ñeexal ab noon wala ñeexal ab xarit ndax xam nga ne Abu Sufyaan bañ koy laaj ndax mas naa fen mu ne du fen boobu noonu la woon ndax dana xuruj mu ne du xuruj boobu noonu la woon lu leen di digal mu ngi digal fegu ak julli ak wax dëgg ak saraxe ak jokku mbokk lii ba tey ba xalaat kat xalaat kat di am ci àddina ba léegi xalaatkat yëpp masuñoo dëñ di wax ne jikko yi jikko yu baax la waaye am noonam moo saxaloon loolu bàyyi ne ay tegtal la yoo xam ne dafa mel ni jant bu leer na buur ñeyal kenn xanaa koo xam ne euh, gisuloo naka Ummu Jamil ba nga xamee dafa ñëw di seet yonent bi tamat koo gis ñu ne ko ah, Ummu Jamil gisuloo mu ne naka la may gisee silmaxaay xol bi maanaam saafara bàyyi ne waxuma la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñëwal ci ñim yar aruni ka amsaalil atiq wan ma wan leen ma ku ni atiq aboubacar siddiq mi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jant tiimut ku gën aboubacrin yonent bi nee na maa fadlakum aboubacrin bi kasrati salaati wala bi kasrati siyaamihi walakin bi cheyin waqara fi qalbihi aboubacar gëneewu leen julli yu bëri te ku mën julli la jënewu leen or yu bëri te ku mën a or la waaye bi shay'in waqara fi qalbihi mooy gëm yàlla am gi mooy mbëggeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy óolu gi mu óolu yàlla ba nga xamee ne waa Màkkaa ngi werante yonent bi dem na beytul maqdis ñëw na ñu ne Abubakar fi gën a gëm waaye loolu du ko dëggal mu ne bu fekkee moo ko wax dëgg la ndax tukki fii ak beytul maqdis ay ñaari weer rek la waaye fukki dem ba ci asamaan yi nga xam ne ay junne ji at la kii koo xam ne dama koy dëggal ci xabaari asamaan bu ma waxee fii ak baytul maqdis ma gëm ko yonent bi ma ne naa dem naa asamaan sax ñëw ci lañ ko tuddee siddiq kon kooku ana ku mel ni abubakar siddiq bi nga xam ne ba yonent bi ootee dundale seydna omar dafa wax ne luñ ootee abubakar man ma waaye tey de ma man man de tey su ma genn wàll alal géeb laay yóbbu jàpp na ne kenn du indi loolu ba mu ñëwee fekk na Aboubacar li mu am yëpp ci alal moom la indi yonent bi ne ko koo koy bàyyee sa njaboot mu ne ko bàyyee naa leen yàlla ak yonentam bàyyee naa leen yàlla ak yonentam te jubluwut yoon mu dee yonent bi di amee waa këram de bàyyee naa leen yàlla ak yonentam mu ne dootuma dootuma dootuma dootuma rawanteeg Aboubacrine Seydina Omar ci jamono Aboubacrine Siddiq dafa am benn màggat bu nekkoon Madina Munawara moo xam ne dafa tëlee lottu amut pour amee bés bu xëyee di ñëw di seet si màggat bi lu mu soxla bu ñëwee dana fekk li soxla yëpp defal nañ ko mu ne man daal tey danaa teel a xëy ba xam ku may jiitu ci mbaax gi kanam mu xëy rond gis Seydina Aboubacar mooy génn ci boobu teg boobu nag moom mooy amee xilaafatul muslimin mooy xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa waaye mu ngi tal màggat moo xam ne parce que yoolam yàlla la bëgg am na ñu ngi ko defal am na kum fay mu mën koo def waaye ñoom dañoo jàpp ne ay jaam yàlla lañ dañoo jàpp ne ay jaam yàlla lañ naka yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf daan liggéeyal jaam yi ak ku mel ni kaman gada sirajan defe naa mool bi ñu mool noonu li li li mukkaani la def siraajan li sukkaanil ulaa dañ yàq baat boobu ñu defar ko siraajan li sukkaanil ulaa mën taxannafa ana kan moo mel ni ki nga xam ne mooy leer ak ñooñ àjjana muy Seydina Omar nga xam ne xadis yi bàyyi ngi wax ne yonent bi ba ko Seydina Xasan سيدنا علي يوني لين شي سيدنا عمر مو جوخ لين اديوم ني بيغل كو حديث جوجي يونس صلى الله عليه وسلم واخ ابو بكر عمر بن الخطاب موي سراج اهل الجنتي مو ني عمر بن الخطاب دين كان ني نانكو سولا ليك لولو بنكو سولي كي ген ني حسن حسين واخ نان دغ جيلي نان سين باي واخ نا دغ جيلي نان سي سانغ ميندي مو يونس محمد صلى الله عليه وسلم واخ نا دغ ني سيدنا عمر موي سراج اهل الجنتي xam nga am na koo xam ne léegi loolu mën na koo xool rek mu jaaxal ko te léegi nangu na ne lampe bii mooy leeral mbaar mi lampe bii leeral mbaar mi mbaar mi jumtukaay bu yàlla jëfandikoo ci teraanga ki nga xam ne man taxallafa wutu na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax Seydina Omar Aboubacar la njëkk tuddee xalifatu rasulillah sallallahu سيدنا عمر نيكاي واخ خليفه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يزن لول غود مو ني مجي امير المؤمنين باي نه ندخ امنا عبقري كسراج ندخ امنا عبقري بو ملني سيدنا عمر بيغا خامني موي سراج اهل الجنه عبقري بو باي دي واخ جوغي كوم عبقري abbas mahmoud aqad nga xam ne ay abqari abqariyatu muhammad abqariyatu omar abqariyatu nangam déedéet baat bi ci wax yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam la ko jëlee ndax abqar abqariyu mooy xaasiq maanaam ku ñaw ku xéwénal dara sëy sanu ko tubaab yi wax génie wala génie koo xam ne maanaam euh, fi ni ñuy jaar jaaru fa ba pare mu man li nit ñi mënut nit ñi jàng école ba sonn mu ñëw jàng ñaari baat ba pare di rawanteeg ñi jàng école bu ko defee ku mel ni Abbas Mahmoud Aqad moom abqari la loolu tax mu bugg abqari yu ndax moom ibtidaayee rek la am ba pare décatire yi ñoo doon dajee këram mu nekk seen docteur di leen jàngal waaye mu ne abqari yu bi bàyyi wax ci Seydina Omar melut ni moom téeréem yooyu mu bind abqari yu fulaan abqari yu fulaan ndax abqari yi boobu ci nite rek la am waaye abqari yi bii bàyyi nga ko jëlee ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moo melal Omar ne gisuma walam ara abqariyan yafri fariyahu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne dafa gént dafa gént maanaam xilaafa lay melal dafa gis teen teen bu mag bu bari ndox mu gis Seydina Aboubacrin di root ci teen bi ci ay baag waaye Zanub du baag bu mag mu ne fa taxawala fi yadihi garban baag boobu mu mujj nekk baag gis mooy baag bu fees dell muy muy xacc muy xacc ndox mi mu ne ma gis ci ci génneem wa fi nazihi doafun euh, mu ne ci root bi Abubakar doon root gis na ne daal euh, duud root bu dëgër noonu fa xafara allaahu lahu yàlla jéggal ko maanaam xilaafa abu bakrin lay wax waxut ñàkk pas-pasam waxut ñàkk dëgëram ndax xam nga ne abu bakrin siddiq waxtu woo xamee ne am na am na taxawaay yoo xam ne nit ñi dañoo miin ne Seydina Omar mooy ki dëgër waaye am na taxawaay yoo xam ne xaarat quwaa omarin fa waqafa abu bakrin waqfata rajulin ndax bañ na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dee na Seydina Omar lu mu wax daf ne loolu ku ko waxati ma dagg sa bopp Seydina Aboubacar moo génn ne man kaana yaabudu muhammadan fa inna muhammadan qad maat wa man kaana yaabudu allah fa inna allah xayun laa yamut ku doon jaamu muhammad muhammad moom dee na ku doon jaamu yàlla nag fa inna allah xayun laa yamut jàng aaya ji maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulullahi wa xaatama nabiyin dégg nga ba jàng ne fa in maata aw qutila bu deexee mbaa ñaray ko <laughs> wa maa muhammadu illa rasulun qad xala min qablihi rusulu afa in maata aw qutila yàlla wax ne muhammad yonentu la yonentu jiitoon na ñeel bu deexee mbaa ñaray ko Seydina Omar mu mel ni mu ne aaya ji mu ngi mel ni mu ngi door a wàcc foofu naa Omar jaaxle na ba xamut fu mu nekk ba wax ne ku wax ne yonent bi dee na maray la Abubakar taxaw ne yonent bi kay dee na yonent bi dee na jublu ci oyofal comme ni yenn ñi di wax ndax ba yonent bi bañ ko tëralee moom Abubakar ñëw na muri ko ne ko tibta hayyan wa mayitan yaa teey ci dund yaa teey ci dee Abubakar keroog ba nga xamee ne taxaw na pour xeex ak murtaddiin yi Seydina Omar jàpputoon ne loolu war a am la waaye Aboubacar moo taxaw ne képp ku fasale julli ak asaka man danaa xeex ak yow Seydina Omar door a xam ne li yàlla leeral xoli Aboubacar loolu mooy dëgg kon Aboubacar ku dëgër la te Aboubacar moo gën Omar ci dëppoo yi ahlu sunna waaye yonentu bi bi muy wax nii seen xilaafa la doon junju mu ne Aboubacar root root tuuti mu ne ma gis ci rootam ak xoyof mu ne na Omar nag jël baag bi fastaxaala fi yadihi garban Aboubacar moom ay zanub la doon rootee mu ne ma gis ne baag bi mujj na nekk baagab gis bu mag ci loxo na Omar mu ne falam ara abqariyan yafri fariyahu gisuma abqari ku xereñ ku mel ni kuy def ni omar defee xatta daraba annaasu bi atanin maanaam ba ba ba xukuma islaamiya istatabal amnu nit ñi dal ndax xam nga ne at yim def ci xilaafaam moo gën a bëri li xew ci xilaafaam moo gën a bëri futuuxaat yi moo gën a bëri diiwaan yim def yim beesal ci jamonoom loolu yëpp la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon junju ma ne kon baay bàyyi fahal abqariyun ka siraaji juhut jugeewut ci comme abqari yu omar abqari yu ousmane waaye ci waxi yonent ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam la jugee mooy abqari yu ndax am na ku xereñ ba mel ni siraaju li jën na bàyyi ne muy seydna omar abqari yu nag ci baati arab sax ci shuaraa yi ñoom dañ doon wax ne dafa am benn xur boo xam ne moom lañ tuddee waadi abqar xuri xur xuri jinne la bo xamne ne mo fa dëkk manam bala nga way sax manam ñoo ñolay ñolay sol ñolay ñolay ñolay may wax yu sheytane nga nga mëna wax waye lima bëgg wax moy ne baat bi baye wax nonu ci sunnatu muhammad lako jëlé ndax yantu bi sallallahu alayhi wasallam mo junj khilafa umar ne fahal abqariyun kassiraaji wal tara wal tara ndax danga gis li Ousmane a ñeel Ousmane shaklan ndend ndax danga gis ku mel ni Ousmane mi nga xam ne wax nañ ne aman wa qaanitun ana alleyli saajidan wa qaaiman yaxdaru alaxirata wa yarju rahmata rabbi ci Seydina Ousmane la wàcc Seydina Ousmane moom nga xam ne moom la yàlla may moom kenn ku yàlla masa booleel ñaari doomi yonentu te ñi ñaari doomi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa may na ko doomam roqiyatu ak ummu kalsoom may ko roqiyatu mu génn àddina mu may ko ummu kalsoom loolu Seydina Ousmane la ko yàlla ma dafa waleeg Seydina Ousmane mi nga xam ne yonent bi dafa wax ci moom ne ndax du ma rus Ousmane mi nga xam ne malaaka yi dañ koo rus Seydina Ousmane mi nga xam ne nee nañ ci xàqam la waa ci aman wa qaanitun ana alleyli saajidan wa qaaiman yaxdaru al axirata wa yarju rahmata rabbi ne daf daan naafilaay alquran yépp ba mu jeex ba ko noonu yi gawee sax terewul mu ngi naafilaay alquran ndax wax nañ ne fekk na kaamil bi nga xam ne moom la doon jàngee fa sayakfiikahumullaahu samiul aliim ci la daanu mu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mu ngi oor yonent bi ne ko ndax dangay dogee si ci man moo tax ba ko Seydina Ali ñaanee pour ñu dimbale ko moom sàkkuur ndimbal boobu duñ dugg ci wax jooju wax ji eh, eh, taarix bi gudd la waaye ana ku mel ni Seydina Ousmane ana ku mel ni Seydina Ousmane mi nga xam ne moom moo boole moo bindaat alquran ndax xam nga ne Seydina Aboubacar Siddiq moo bind alquran ñi def ko muy benn kaamil ci mu oote euh, abi xudaymata ci jamono seydna Ousmane nag xudayfatul yamaani bi nga xamee ne jullit ñi dañoo nekk ci xare ñi commencé di werante ci aaya euh, baati nangam nii lañ koy jàngee baati nangam nii lañ koy jàngee ñu commencé werante ci loolu moom mu ñëw ne seydna Ousmane na nga na nga dabaatal umma bi bala ñoo werante ci alquran di leen tasaare te loolu commencé woon nañ ko ci jamono yonent bi sallallahu ndax Seydina Omar am na ku mu dégg mu jàng benn aaya ci suratul furqaan mu pañe ko ne ko foo jëlee lii mu ne ko yonent bi ma ko jàngal mu ne ko nañ dem ci yonent bi mu jàng ko yonent bi ne hakaza unzila unzila alqur'ana ala sab'ati ahrufin faqra'u ala ayyi ayyiha shi'tum wala tumaaru fihi yàlla wàccee ne alquran ci juróom ñaari xaraf jàngee leen bu leen ci neexee maan fekk yi ngay jàng am na am am am am am na sukkandikuwaay te bu leen ci werante waaye ci jamono Aboubacar moo bindulu moo bindulu kaamil bi te loolu Seydina Omar moo ñëw ci moom gannaaw bu nga xamee ne ñi nga xam ne dee nañ ci euh, ci ci euh, euh, ridda lu mat sabiina ñoo xam ne ci xufaas yi lañ bokkoon te bindu ñoon kaamil bi mu fexe ba bindulu ko kaamil boobu des ci Seydina Omar gannaawam mu des ci xabsatu doomam ba ci jamono Seydina Ousmane ba julli ñi di werante nag ci jàng alquran te fekk ñu ngi ci xaswa nga xam ne ñu ngi war a jàkkaarloo songoog seeni noon ñoom ci seen bopp ñuy xeex kooku ne Seydina Ousmane dabaatalal jullit ñi bala ñoo utee ci alquran di leen indil néew doole wala tanaza'u fa tafshalu wa tadhhaba riihukum la yàlla wax Seydina Ousmane ci la oote xufaas yi ñi nga xam ne ñoo bindoon alquran ñoo loon alquran jël Zayd ibn Thabit jiital ko ci ñoom ne euh, buñ utee ci dara nag nañ ko bind ci lugatu quraysh ndax alquran ci lugatu quraysh la wàcc ñi bindat kamil bi def ko juróom-ñaari nuskha mu yonne ben ci medina munawara ben ci ben ci makka ben ci kufa ben ci basra ben ci yemen ben ben ci sham nga xamne ba legi bo deme sidna al husayn ci qahira da nga fek sidna al usman kamil usman bi lolu tax ñi wax mushaf al osmaani kon ku mel ni Seydina Osmaan loolu la bàyyi di laaj ndax jooju jëf nga xam ne moo ko jëf kenn defu ko Seydina Osmaan jaysul osrati bi nga xamee ne ñëpp a ngi jaaxle moom moo dundale jaysul osrati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw guddi ba fajar te waxul ne wax ne Seydina Osmaan rek la doon ñaanal guddeem googu yëpp ba pare teg ci ne maa dara Osmaanu maa faala baadal yowmu Osmaan lu mu mën a defati gannaaw tey du ko lor loolu ku ko amoon ci yonent bi sallallahu la wasallam ko dul ñooñu nga xam ne yonent bi ñoo leen yar danga tukkal àddina waaye lu la neex defal te dara du la ci fekk te ñoo gënoon a tënku ñoo gënoon a baax kenn melul ni ñooñu mu ne Ousmane moomu nga xam ne zaakumu kooku seen muy Ousmane zeynikum seen ñaar ñooñu muy Omar ak Aboubacar xafaa la roy ñooñu la roy te yonent bi la alayhi wasallam la roy wa man ka amiril na kan moo mel ni amiril muminina kan mooy amirul ne fii wa sinwihi ki nga xam ne mooy doomi baay taxi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam eh, sinwu mooy doomi mooy doomi baay tax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mase a yónni Seydina Omar mu dem jëli mu dem mu dem laaji eh, jëli asak dañ daan seet koo xam ne moom mooy jël asaka yi jibaaya dem ci borom alal yi borom nag yi borom xar yi borom mbéy yi borom gëléem yi duñ génnee lu leen neex ñi génnee asaka yi ba Seydina Omar delsee mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ibnu jamil ak abbas ak xaalid ibnu walid ñoom ñëpp manau zakat maanaam imtanaaw an dafi zakat يونت بي نك ما ينقم ام جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله ام جميل دي موم دراجا بور لو ماي دافا نياكون يالا يالا ماي كو كو نياكون يالا ماي لا كاي وونغا اويسي اوتي بي يالا بي نعم اما خالد فانتم تظلمون خالد فقد احسب فقد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله xaalit kay da ngeen koy tooñ ne xaalit joxewut azak waaye xaalit mi nga xam ne mu ngi tëj ay mbubi koongam tëj ay ngànnaayam ci yoon yàlla kooku du ñàkk a joxe azak am na ñaari firi maanaam xaalit mi mën a joxe bakkanam ngir yàlla kooku du bañ a joxe azak wala est-ce que du ne xaalit dafa jël asakaam yi ne ndax masaarifi zakat bokk na ci fi sabilillahi muy jihaad nga xam ne gën a bari ci borom xam-xam yi foofu lañ ko amele am nañu ñu ko yaatal yóbbu ko ci leneen ndax Xaalid dafa jël azakaam yi jënd ci ay mbubu koo ngam jënd ci ay xeexu waayam ba tey mun na nekk mu ne am amma Abbas fa alayya wa misluhu Abbas moom azakaam man maa koy joxe ak ak ak ak du ak duubulam sax من سيدنا عمر أما شعرت عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم منك أما شعرت أن عم الرجل صلو أبيه خنا قمون عم نتكي موي نتكي باي تخم موي صلو أبيه مم العرب دي تلو صلو موتخ باي بعد بيتم تي سنة لكو جلي ومن كأمير المؤمنين وصنوه باتق عرب لا نجان عرب يبقى من يصنو موي دون باي تخ ولا موي باي تخ koo ko ko ko bokk ak bay mu ko ama alimta ama shaarta anna amma rajuli sinwu abihi loolu dafa bëgg wax Seydina Omar ne Abbas moom comme man sama baay tax la kooku moom asakaam maa joxe te danaa ko tegal beneen danaa ko tegal beneen nag lu muy firi waxkat yi am nañu wax ne amirul muminina wala ki nga xam ne jël asaka yi mën naa jël asakaay nit ki ren ak lépp asakaay déwénam dugalaale ko ci soxla yi est-ce que loolu la yonent bi defal abbas wala ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bugg a wane ne abbas comme man mooy sama baay tax ba pare moom mu bëgg a oyofal joxe asaka moom bu nit ñi joxe benn yoon moom ñaari yoon lay joxe ba tey mën naa firi loolu waaye ama shaurta anna am rajuli sunu abihi ndax xamoo ne bàyyi taxi nit ki moom mooy mooy sën wu baayam sën wu baat bi ci arab dañuy wax ne dafa jóge ci euh, naxiil maanaam euh, garabi tàndarma mën naa jebbi nii ba pare jur ñaari tàndarma ñaari garab yu mel nii fa la fa la sën wu jugee kon amul rajuli sinwu abihi léegi nag da nga dégg koo xam ne diw sa baay la mun naa sama baay tax rek la sama magi baay la wala sama rakki baay rek la yonent bi fayal na baay taxam bi ñaari yoon te ama sha'urta anna amma rajuli sinwu abihi layal na tim xaalit ndax xaalit mi mën a joxe kanam ngir yàlla kon daal du bañ a joxe asak umu jamil daal moom la laal ci ay baat mu jëmil daal dara jàpp ko lu may dafa amutoon yàlla may ko ku yàlla may la da ngaa war a def loolu ku amutoon yàlla may la ku nekk war ngaa war ngaa jàngee ci loolu waaye xaalit daal dangeen koo tooñ ndax moom joxe na dooleem yëpp ngir yàlla moo tax ba muy dee moom xaalit dafa wax ne waaye ragal yi daal yàlla buñ nelaw ndax moom mi nga xam ne fu mu jaar ci xare amut fenn ci yaram bi foo xam ne jaase dëbbuñ ko fa wala fett téeméeri dëbb dëbb fett mu ngi ci yaramam yi te deexut ci xare yàlla natoo ko mu dee ci kaw lalam bi mu ne daal falaa naamat ayunul jubanaa yi ñi ragal daal yàlla buñ nelawati dafa bugg a wax ne eh, ragal daal jaru loolu yàlla bindalu du lay jot sin wixi aliyu abi sabtayni aliyu moomu nga xam ne nag mooy bàyyi ñaari cheikh yi aliyu baax na lool waaye yokk na ci mbaaxam ngi ne mooy bàyyi xasan ak xuseyn zil qurbi kay borom ak jage ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne ay domam yonent bi domam yu góor dundagn domi ali la def ñi ay domam nga xamne borom ak jage lay borom ak wafa lañ mom mom nga xali yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ali ci ci mom mu ngi melni ni manzila ci haaruna mi musa dalailu at at muqniatin ay tektal yo xamne mujjuna nek lo xamne lu doy la lu meuna convaincre nit la ndax bu fekkone ne bi sallallahu alayhi wasallam mom rek baax yag nañu gis ku baax waye ku baaxal baaxal ba baaxal ku melni abou Abu Bakrin baaxal ku melni ni umar baaxal ku melni ni ali baaxal ku melni ni usman baaxal ku melni ni ali baaxal ku melni ni dess ci sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam nga xamne ñom ñep ay biddiw yu njub lañ ne loolu dëgg-dëgg ab xarat ay tegtal la yu doy xel te yu xéem la yu xéeme la yoo xam ne laxaa ñeexal ko in qaada la romatoo omatoo xisiisun ab xisiis koo xam ne nekk na ci kilifa ci yeneen diine yi waaye njub gi nga xam ne moom la yonent bi indi ak ñim defar ci ñooñu lañ jubee wa aslama te te te te jébbalu man jafaa ka tong yoon yooyu tegtali yonent bi sallallahu alayhi wasallam tegtalam moom ci boppam jikkoom moom ci boppam bindam moom ci boppam alquran jim indi sunnaam jim indi saxaaba yim yar yoon wi mu teg njub gi yoon wi jub njub gi nitam ñi jub defar bi mu leen defar fi mu leen jëlee fi mu leen yóbbu dëgg-dëgg bàyyi ne loolu doy na tegtal ci dëggu lislaam wal quutu ruuxin ka salaati ndax am na wada diinu qad amal basitati diina ji matal na àddina yëpp waxte laata kawe ala déeri ci diine yi ñi nga xam ne ñi ngi ci déeri bi di jaamu leneen lu ma yàlla raxman ànd ak toroxtaaneeg min xusuumin ci ñiy xuloo waman nafa ak ñuy dàq wér ak diina ji ndax am na dund rooxo bu mel ni julli bi nga xam ne moom la yoon ci waxoon wa ju'ilat qurratu ayni fi salaati wax ne suñu diggante ak ñeneen ñi mooy julli ku julli rek bokkoo ci moo tax bàyyi ne olof sax ñoo ci noppal ñoppal ñoo ci noppale ñoom muslim moom julli lañ ko tuddee jullikat lañ ko tuddee boroom xam-xam yi dañuy werante ndax yeneen yi ku ko bàyyi xéeféer nga waaye ku bàyyi julli moom dañ la xéeféer bàyyi ne hal nadiran li tuhrin ndax danga gis lu mel ni laab bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa indi nga xam ne laab ndox gi dafay yóbbu ci laabal xol te laab ndox daf lay jàngal ne la dëgg-dëgg bu fekkee borom bu tedd bii bala ngaa dajeeg moom sa yaram wii war nga koo laabal kon na xam ne sa xol bitim war nga koo laabal rad na ci hadis ne kenn du takkoo njàpp lu may koo xam ne nii dafa gëm yàlla yonent bi sallallahu alayhi dafa dugg àjjana dégg fa ay tànk mu ne tànk kan la ñu ne ko tànk bilaal mu ne bilaal noo def ba jiitu fa mu ne ko masu maa jàpp lu may julli naa ci la ma julli la ma mën a julli yonent bi ne ko kon ci loolu nga jëlee loolu moo tax laab dafay fegal nit seytaane yonent bi jàngale na sallallahu alayhi wa sallam ne nit ki boo xeewoo booy nelaw seytaane dafay ñëw takk ci sa gannaaw gi ay fas-fas tëfli ne yàlla nay gudd gu gudd ci yow mu ne boo eewoo yonentu ne boo eewoo da ngay ànd ak bakkan bu bon maanaam bakkan bu salte bakkan bu salte mooy boo xam ne pare na ci luñ ko oo ci mbenke njenke mu dugg ci mu ne boo jàppee benn toj boo tuddee yàlla beneen toj boo juglee leneen toj yontu bi jàngal nañu ba jàngal ñu loo xam ne àggagoo ci jàpp waaye ci buntab tuxur la bokk ndax mu ne boo eewoo nga sorox ndiku ñetti yoon ndax seytaane dafay fanaan ci sa xayaasim yi firi ko noko ko firé waye bo sorox ndiko soroxndikoo ñetti yoon mu deñ xayaasim yooyu seytaane fanaan sorox ndiko ñetti yoon mu deñ ndax ñetti yoon yi ci sa japp bi la wala ñetti yoon yi ci la ndiko rek la bu la neex nga def ci bu la neex nga ndiko loru nga neex nga japp kon amut lu melni ni aw siyamin wala lu melni ni koor duñ toogaat di wax fii njëriñal yooyu yëpp buñ toogoon di wax quutu ruuxin ka salaati ndax a asalaatu silatun julli jokkoo la ndax bàyyi wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo rañaan guddi indi julli booy julli rek yaa ngi ci rañaan googu kon rendez-vous la ak sa borom loolu lu màgg la rendez-vous boobu bala koo def sa borom mooy ngay def toxru sa laab googu nga xam ne moo lay eeyaloo deeyaleeg sa borom bàyyi nee na laab ak zaahir googu daf lay àggale ci laab ak baatin gi nga xam ne boo ci xasee ba àgg dootu toj ba mukk mooy sa xol bi xéwén ana lu mel ni xoor ci koo xam ne nii dangaa sell ndax xoor yàlla jëf yépp moo koy fay de waaye moo jagleel koor ne asiyaamu lii wa ana ajzi bi koor maa ko moom ndax koor yàlla rek lañ ko mën a defal kuy oor ngir nit ñi gis la da ngay génn ci biti doo naan boo duggee naan kon oragoo koor yàlla rek man man koo def lu ñu def la ko alayka biha bàyyi ne alayka na nga jàpp biha ci julli tudd na yii yëpp waaye ba muy dénkaane hat ci julli la ko delloo lu tax luy tegtale loolu far fal tarka an na tawaadu an la ci teg na nga rukkoo ngir toroxlu yàlla ndax ne ida qumta min baadi alwudui murattilan wa tasjudu min baadi alrukuui muazami faqad tuwiyat anka almasaafatu jahratan wasalta ila almahbubi kabbir azimi boo jàppee kabar ihram ruko sujood bàyyi ne na àgg nga ci borom bi ku àgg ci borom bi warul toonoo gestoo jëm ci leneen moo tax mu méngoog nga wax ne allahu akbar bàyyi ne duhut yàlla gën a màgg kenn ndax yàlla nekkut ak lu muy gën a màgganteeg waaye yàlla gën a màgg yow li nga foog ne dafa xam bay màgg li rabbi jullil nga def toroxlu sa borom yonent bi waxtu bu ko dara jaaxaloon rek sallallahu alayhi wa sallam mu jublu ci julli waxtu bu ko dara jaaxaloon rek ci julli lay jub moo tax boo amee lu la jaaxal demal julli yi boo amul foo boo amul loo ñaan sax julli bi mën na laa indil faraj te yàlla xamal ne ñun ne salaat tanha anil fahshaa'i wal munkar te ñaawteef yooyu rek moo dax diggante nit ñi àgg ci yàlla moo dox tam diggante ñi àgg ci liñ bëgg am ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam uridu liqal maahi wa zan bi xaajizi wa in yalxadil maahi tuwil aqabaatu la bàyyi waxoon maa ngi bëgg a dajeeg bi waaye bàkkaat yi rek ñooy barrage yi waaye bu ma yonent bi gendeekoo yàlla nañu gendeeko rek ñi lemal ñu ñi lemal ñu euh, barrage yi bàyyi ne boo jullee ànd ak toroxlu te temkina tëmkii da nga gis ak jappandal jappandal gu la yàlla may ci péeb yalla bi wal qurba da nga gis go jage ak borom bi te yàlla moo ko wax sujud tarib sujudal nga gëna jage yalla da nga gis safa safa al qalbi da nga ko gis ta jam bi waxtu wu nekké ci safa rek waxtu wo waxtu wu man ta doon waxtu nangu ñaan la man zaqa ta'ma zikri wa sawmi faniyan ku mos lu tuddu yalla di saf mos lu hor deug deug di saf faniyan muy aji jeex ndax or yalla ko mom ndax yalla du lek du nan or ak amati moy bañi bayyi lek ak nan ak wax lu haram ak ba fajar xare ba jant nañoo xam ne lekk ak naan rek la ñuy bàyyi waaye terewul ñu gi def benke njënke yëpp bàyyi ne or ak xaasatu yi ñoom dañoo or ci lépp lu yàlla xaraamal mu ne or ak xaasatu xaasa yi nag ñoom dañoo àgg ci or ci lépp lu du yàlla moo tax mu ne wa sawmi faaniyan ku mos goolu nag faqad zaaqat sirral mustafayna wa utxifaako bu àggee foofu mos nga mbóoti gaay yàlla yi nga xam ne tànn la leen mu dalee ci ay yonentam buñ jeexee wàll yi des nga xam ne bun bunteb tànneef googu tëjoogut ba léegi ku jaar seen yoon topp yonent bi topp yooni saxaaba yi topp yooni saalixiin yi di tudd yàlla di jàng alxuraan di saraxe di dundale ngir yàlla di teet yu xaraam yi di def yu baax yi di bëgg jaamu yàlla yi di dimbale koo mën a dimbale di baal ku la tooñ di jokk ku la dagg yéeg rek yàlla éegal la ci jaamam yooyu nga xam ne foofu rek lañ jaaroon ba baax bihi wa ilayhi minhu fihi damir yëpp delloo na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yàlla boo demee ba àgg foofu bii ci yàlla ngay defee ilayhi ci moom nga jëm minhu ci moom nga tukkee fii ci moom nga ne majaaluhu ak lefam lépp ci moom la جاء الحق وذهب الباطل إلى المتهاو باطل دمنا دق مودس كيال دق منتنك باطل دفكي محق بين بذا ينال القدس ينال القدس أنقى وأنظفى تلو الله جانبي أجي تي بيا الله بي مغنا سل مغنا ست يا الله أمود برب jambe bee am barab bu jaam bàyyee barabam yi àgg ci yàlla walaysa yura alquduusu bil ayni innama bi ayni al ama walsaxqi walmaxqi waltamsi taskaru mahma qad hamamta walam tazuq mudaaman fekk yaa nga màndi ci naan ak pay boo xam ne jotoo koo la bàyyi wax ibnu faari wax maa ngi ndokkeel gaaña waa pay ba mandi nañ te naanuñ ko xanaa dañ ko itteew rek hani andi li ahli dayri kam sakiru biha wa ma sharibu minha walakinahum hamu hunaka tarahu bàyyi na boo àggee foofu foofu nga koy gisee aw yaraaka xanaa boo àggut ci gis ko àgg ci mu gis la mooy maqaamu ihsaan bi yonent bi jàngale amal ihsaanu an ka annaka tara in lam takun tarahu fa innahu yaraaka ka annaka taraa dafa làmboo ka annaka taraahu wa yaraak ndax yow amoo bët boo gisee yàlla ki am bët mu ngi lay gis wala aw yaraaka boo àggut ci mën a teewlu ba mel ni yaa ngi gis yàlla nag àgg ci muraqaba ba xam ne yàlla muttaliun ala jamii shu'unik wa jamii umurik fala takun boobaa yow doo nekkati wa sax noppil wéyka toskare sa laa tantiq bul wax xasaari moytul am na foo xam ne boo fa àggee bul wax boo fa àggee bul wax ndax wax amu fa barab ñeneen ñi it moomuñ ko boo waxee wax lu keneen moomut te gaañi ne xalaaja ko wax man saararuhu fa afsha sirra muctamidan lam yamanu ala al asraari maasha kuñ yootal mu wax secrété moko tay tey dootuñ ko yotal manam buntam ndolé ndolal da bay ñeel ko xasaar yi mooy tëndikul taxawal qifa taxawal qifan qifan la waron la don wax bu taxutoon nak bayti bi qifan qifa alif bi nun gi la nun gi la la remplacer nun tëkkiit khafif danañ ko remplacer ci way alif da nga dégg ci bayti ko shaa'ir bi wax ne laa taabudi sheytaana wallaha faabuda laa taabudi sheytaana wallaha faabudan la doon wax waaye alif nuun googu moom la soppi alif comme ni nga xamee ne léegi itam ñu soppi alif nuun ci wéy loolu ñuy wax arab yi ñoo ko soxla te xam naa ne ñuy jàng siira rek ci lañ ne fi mu ne waaye xifan xifaa alif googu lu ko indi duut alifu isnayni waxut ne xifaa taxaw leen yéen ñaar déedéet xifan xifan la doon wax waaye bayt bi moo tax mu soppi nun googu def ko muy alif muy xifan xifaa bihi wa ilay fii ah? ah wa kassara asnaaman yonent bi sallallahu alayhi wa daane na ay xëram ka misli xalilihi ni nga xamee ne ibrahim xalilullah daane na xërëm yi ay nitam doon jaamu tallahi la akidanna asnaamakum baada an tuwallu mudbirin fa jaalahum jidaadan illa kabiran lahum laallahum ilay yarjiun nam daanee xërëm yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga ba muy ubbi makka jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqan la doon wax fekk gannaaw aj gi nga xam ne aj ci lislaam benn la yonent bi def aj ci yoon jamono yoontu bi ñaari aj la ndax aj na yoo xam ne Abubakrin la jiital yónni Seydina Amar mu jàng suratu baraa wax ne laa yaxujul bayta baada al aami mushrikun gannaaw bi nga xamee na nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwaat na kon ba Abubakrin di aj Seydina Ali nekk ca umma bi nekk ci yonent bi ajut boobu aj googu fekk na xëram yaa ngi ci néeg ba gannaaw gi ba yonent bi yonent sallallahu alayhi wa ko jaamukati xërëm ya nga fa ba yonent bi fatxo makka la daane xërëm yi te etam daf koy junj rek jaa al xaq wa zahaqa al baatil inna al baatila kaana xërëm yi di daanu kon la ibrahima def ci daame daane xërëm yi sallallahu alayhi def na ko ba ngi daane xërëm yi wa amsat bi bardan bardan musharifa ni nga xamé ne sidna ibrahima dugal nañ ko ci safara yàlla na safara si qul naar yaa kuni bardan wa salaman ala ibrahima yàlla ne safara nekkal di sedd nekkal di jàmm ñeexal ibrahima bayina bu ci yàlla teguton wa salaman bardan bi mën naa loor ibrahima na nga xamé ne ibrahima alayhi salam yàlla dugal nañ ko ci safara safara si lakkut ko yàlla may na ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kuñ dugal ci safara te safara lakkut ko ndax saxaabi yu yonent bi koo xam ne du saxaabi sax taabii la ndax dund na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallama abi muslimul xawalaani ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bi nga xamee ne eh, eh, aswadul ansi ci ñu ootee woon yonentu la ci yeman dafa oote ne yonentu la abi muslimul xawalaani Zuayb ibn Kulayb lay tudd moom moo njëkk a gëm yonent bi ci Yemen bi mu gëmee Abul Aswad ne ko ndax seede nga ne hal tashhadu anni rasulullahi mu ne ko lam asma mu ne ko hal tashhadu anna muhammadan rasulullahi mu ne ko naam ashhadu annahu rasulullahi ndax da ngaa seede na nga man yonente bi yàlla la mu ne ko li ngay wax dégguma ko de mu ne ko seede nga ne muhammad yonente yàlla la mu ne ko muhammad kay yonente yàlla la mu jël ko dugal ko ci safara safara si defut ko dara yonent bi wax ko saxaaba yi ci jamono seydna aboubacrin naa aboubacrin ba mu ko gisee mu ne fekk aswadul ansi dañ ko wax ne ko kii boo ko génneewut ci sa topp gi dana la yàqal ñi la gëmoon génnee ko fii mu dàq ko bi mu koy dàq ak bi muy bi muy ñëw Madina Munawara fekk na yonent bi génn àddina bi ko sedd seydna aboubacrin gisee dafa wax ne maa ngi sant yàlla mi ma war ci ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam koo xam la yàlla defal ibrahima muy mujiza yàlla defal nako ko mom muy karama ci barke yonnati yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam naka noonu seydna omar wax na safara tak na ci madinatu munawara gannaaw yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi nettali na ko ne seydna omar daf ne safara si yonnati bi nek na fi ba jugee fi takulo fi lutax ma nek fi ngay tàkk xana dama jubut yàlla yóbbu safara si am na riwaaya boo xam ne dafa wax ne safara dafa ñëw ci madina munawara tamimu daari yaxuushuhu mu koy dàq di ko dàq nii comme kuy dàq xale muy dem di ko dàq di ko dàq ba safara si génn yëpp madina seydna omar ne ko li haada kunna naxtafidu bika aw aw aw nuxbiuka lii moo taxoon lii moo taxoon ñi lay denc xamoon nañ ne xamoon nañ ne bés bii dana ñëw ñooñu ay sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam abu muslim nag moom àggut sax ci sahaabi yu ndax gëm na yonent bi ci jamonom waye gisut yonent bi ci jamonom wax nañ ne mom ma waxon ne lanuzaaximanna ashab muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hatta ya'lamu aw ya'rifu an min waraihim rijal danañ buuxanteeg sahaba yi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bañ xamne baye nañ seen gannaaw ay góor baye nañ seen gannaaw ay góor te ñooñu yonent bégal na len ndax yonent bi wax na ne jamono ngi ñëw alqaabidu ala diinihi alqaabidu ala alxajar ala jamar am na jamono ngi ñëw ku jàpp ci diine mu ngi mel ni ku jàpp tey ci jamra ñu ne ko ndax ci ñun wala ci ñoom mu ne ci ñoom dégg nga te ñoom yàlla dana leen may ci seen yool yi ibaada juróom fukk mu ne ko ci suñ yool yi mu ne wala ci seen yool yi ñoom mu ne ko seen yool yi ñun yéen ndax yéen tajiduuna ala alxaqi awaanan yéen da di am ñu baax ñu baax yu leen di dimbale ci def lu baax te ñu seen jamono du ñu fekk lu leen di dimbale ci def lu baax maanaam mbenke njenke yi dafay bëri yàqu bëri caaxaan bëri euh, yu bon yu bëri bu yu bon yu bëree ku jublu yàlla yàlla mën na laa may yool yu kawe yooyu nga xam ne nii ñi nekkoon ci jamono yu gën a baax amuñ ko woon waaye ñi gën mooy ñii nga xam ne moom la bàyyi ñoom la bàyyi doon tudd muy sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne wa axyaaka isa dundal na comme isa ndax rod na ci sunan yi xasaais suyuti indi na ko jigéen joo xam ne nii dafa ji ansaar mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama doomam dee ñi ne xale bi dee na mu ne yow yàlla bu fekkee ne man maa ngi gàddaay fekk wax nañ ko ba ne ko dee na léegi pare nañ ko na nga yaakaar ak yoorab yàlla rek mu ne daal man fekkee ne damaa gàddaaye bàyyi kufru ñëw ci yonent bi yàlla daal sama doom ji bu ko jël eh, fekk doom ji dara desut lu may ñi sang ko jébal ko boromam mu jub loolu yàlla maye na ko ci barke yonentu yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon wa axyaaka isa baada mawta li qawmihi te am na lu gën a mat ndax jembaraay yii jembaraay ji dund gisuñ ko waaye gis niñ jembaraay di sàbbaal ci loxo yonent bi ba ñépp di ko dégg gis nañ téegam bi di sàbbaal ba ñëpp dégg ko gis nañ gis un naxlati yi nga xam ne moom la doon sukkandikoo di xutba bañ ko defalee min baram bi dafa nam mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jooy jooy jooy jooy ba mel ni gëlëm guy jooy ay doomam yu mu tàggale ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw tatafu ko mu door a noppi kon yonent bi lim dundal ëpp na li Isaa dundal ndax Isa lu doon dee dund dee lu doon dund dee la dundal waaye yonent bi dundal na sax loo xam ne rooxo masu cee jaar wa axyaaka Isa baada mawta li qawmihi wa bil massi naalal asqamuuna kaza shifa ci laal ak loxoom rek way feebar ñi amee nañ ci saafara ndax loolu sidna Ali ibn Abi Talibin doy na ci tegtal ndax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaswatu xaybar ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne yàlla dana jox raaya ji ëllëg jaam boo xam ne bëgg na yàlla yàlla bëgg ko seydna ali mu ne seydna omar mu ne masu maa mébét falte lu may bés keroog yonent bi laajte ne ana ali ibn abi taalibin ñi ne ko dafa wànnentu wànnentu goo xam ne euh, jàppandiwul mukk mu ànd ak muy maanaam dem ci xare wala muy téye xare yonent bi sallallahu alayhi nañ ko oo ba mu ñëwee mu tëfli ci ay bëtam mu mel ni masta wànnentu xataadata bi nga xam ne ni dañoo luqi bëtam ci xaswatu uxud ci li gën a siiw am na ñu ne badar la am na ñu ne xandaq la am na ñu ne uxud la ñi gën a siiw dañ ne uxud la yonent bi salallahu alayhi wa sallama moo jël bët boobu bàyyi nga koy nettali ci sira siyar bi ñëpp ñëpp dégg nañ ko ne yonent bi daf ko wax ne ko ma delloo la sa bët wala ma ñaanal la bëtëb àjjana garanté la àjjana mu ne ko ah bëtëb àjjana dëgg dëgg dëgg baxna lol waye dal man dama dañ ma indil ab set bu bes dal bo xamne ne bugguma dem ak fofu ak beut bo xamne ni dafa yaqku yonentou bi jël beutam yi delloo ko mu ñëw ci mom motax Omar ibn Abdul Aziz wafdi dafa ma sa ñëw ci mom mu len di laaj ku nek moy kan mu am ci ko xamne ni ñu ne ci doomi Qataada la bok mu ne an alladi saalat ala alxaddi aynuhu wa raddadhu kafful Mustafa ahsana raddi فعادت كما كانت لأول أمرها فيا حسن ما عين ويا حسن ما ردي منكم من ما يدوم كنا خمنة بتي بايم دفرت كل خمبي مي قتادت فردت كف المصطفى أحسن أحسن الردي من يونت بي صلى الله عليه وسلم تنقم بتل بوبو مجلكو دلو هاتكو بب مجمل نملون ولا مجنا ndax wax nañ ne bu daan wànnent tax bët bi yonentu delloo du ko du wànnent moo tax mu ne fa yaa xusna ma aynin wa yaa xusna ma raddi omar ibn abdul aziz ne ne ko tilka almakaarimu laa qacbaana min labanin shiibat bimaain fa aada baadu abwaala boobu bayti umayata ibnu abi salt moo ko waxoon umayata ibnu abi salt ci xanaf yii ni la bokkoon ñi nga xam ne dañ doon séentu ñëw ak yonent bi gëm jaamu yàlla ak yooyu wax na ay xikam moo waxoon bayti boobu waaye ba doomi Qataada te waxee Omar ibnu Abdul Aziz ne ko man maay ki maay doomi Qataada mi nga xam ne yonent bi baayam ba bëtam yi rotee ci lexam yonent bi moo ko delloo gën caa rafeti delloo mu mel comme na meloon wala nu ko gën a rafet amul lu gën a rafet bët boobu waaye amul lu gën a rafet delloo googu mu tilkal makaarimu laa qaxbaana min labani loolu mooy teraanga dëgg-dëgg teraanga dëgg-dëgg mooy lii waaye du ay kaasi meew yu ñu naan maanaam teraanga du mooy alali àddina am am am am am am am xasr bu rafet ñu lay njaral njar yu neex nga naan ko te njar yooyu lum set set dafay mujj nekk ay ay lan saw tilkal makaarimu laa qaxbaana min labani shibat bi maa in fa abwala bàyyi indina na ko moom ci tagg Cheikh Tidiane tilkal makaarimu لا قعبان من لبن تلك المكا تلك الوراثة من أعلى الأرومات لولو من بامي تقي شيخ تيجاني نال تيجاني أبو العباس آيات قد فاز منها خطوب بالكرامات بنيوتنا تلك المكارم لا قعبان من لبن تلك الوراثة من أعلى الأرومات لولو موي ndonnu gi gën a yëkkatiku mu jugee teg ci cosaan gi gën a yëkkatiku mooy Tidiane دوننا يونس yonent محمد صلى الله عليه وسلم عمر omar ibn العزيز aziz tim lii la wax kii ne ko yow mii doomi صلى الله عليه ànd خمغا yonent bi sallallahu فكنا wa sallam xam nga ne صلى الله عليه وسلم موتا عمر mashahid yépp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax omar ne ko sa teranga moomu di du alali adina yo xamne lang cey lek lum neex neex ay sobe rek lay mujj waye li moy karama ndax fi muy moy ngeur man ak yàlla moy dëkkaal ak yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam momu mok Abu Saïd khudri ño bokk ben yaay ta bokkuñ baye suleyman Malkun ah defna naa ni baral affaire bi mu bëgg guddé ha li Muusaa miyaahun min ruxaamin tafajjarat wa min kaffi xayri khalqi sala wa nayafa musa xam nga ne ah am na deux kon ñu bàyyi mu ngi bëgg a yàgg ah Moussa dafa euh, euh, xotti ndox mi jàll yàlla ay ndox sewnde di balee gannaaw bu mu dóoree xetam fan fa jar mina snata asharata ay fukki sewnde ak ñaar di bale ci xetam boobu nga xam ne moom la dóor yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama kenn mas ta gis bàyyi ne kenn mas gis ndox moo xam ne dafay ballee ci diggante sidit ak deret ak yàpp moo tax wa min këf fi xayril xalqi saala wan a yafa yonent bi nekk na ci xaswa saxaaba yi amuñ ndox muñ jàppee sax mooy ndax am na ku am dara ci ndox bàyyi na mu ngi nëbb mujisaat yi ñu indil ko dara ci ndox mu dugal loxoom bi ñu gis ndox mi di ball comme ay sewnde ñetti téeméeri nit ak lu teg ñëpp naan nañ jàpp nañ ñi bëgg a sangu-sangu nañ ci ndox mi ndox mi des loolu li Moussa am fan fa jara min isnata asharata aynan amoon na ko Moussa amoon na ko gannaaw boo xamee ne yàlla daf ne ko dóoral sa xet bi waaye xam nga ne ndox muy ballee ci diggante yax ak yuux ak sidit ak yàpp dëgg-dëgg moo gën a euh, kéem kéem kéemaane loolu dañuy wax ne ndox moomu nga xam ne mu ngi ballee ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kayit ma tegoon fi loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndox moomu dëgg-dëgg mooy ndox moo xam ne nii moo moo moo moo moo gën a sell ci ndox yi wax na ko feneen fi Muusa kalimun qad saqa allahu qawmahu bihi faada maun min ruxaamin murabbaci wa laysa yuxaaki ma araana muhammadun سقانا بماء سال من بين أسبوعي وبعد انفلاق البحر شق محمد لنا قمرا فوق الهواء المرفع فكان موسى موم نخ لقت ينتمي اقتربت الساعة وانشق القمر نان نانكو مقتي ويروي نيب غيسكو وما ماكاي ني سون بدي لا بوتوكي كادي نيوي بون بون لاجي دون غيس waaye tukkikat yi ba ñëwee ñoom ñëpp gis nañ loolu xat fa baxril mooy loolu rek Moussa xotti na géej gi waaye yonent bi bañ ko ñaanee mu xotti weer wi xotti na ko suleymaanu malkun sa xaral jinna bay na ma suleymaan yàlla tasxiiral na ko jinne yi ñu koy liggéeyal yaamaluuna lahu maa yashaa'uuna maxaariba wa tamaasiila wa jifaanin kal jawaabi wa quduuran raasiyaat i'malu ala daawuda shukran wa qalilu min ibadiya shakur yàlla tàggatal ko jinne yi ñu koy liggéeyal waaye yàlla yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam malaaka yi la ko yàlla tàggatal ñi koy liggéeyal ñu ñëw ci xaswatu badrin di xeex jibril nekk bëkk néegam maraadu aminillahi markazu ahmadin ah qad istaxdama alhaadi malaiku man kafa yonent bi jëfandikoo naa malaaka yi وأسرى به الله الجليل جلاله يلا ناك موم يلا مو مبغمي إلى القدس جم بي يلا بي للعلوي نيال كو العلي بي أجي كو متصرفا مو أجي صوف بندكو باين وإني له أسري وإني به أسري وإني به أسري لمن لا وإني به أسري wa usri bi sirrihi wa asri bi sirrihi loo am wa anni wa inni lahu asri wa inni lahu asri maa ngi rañaan jëm ci moom rañaan mooy tukki guddi yonent bi tukkeem googu nga xam ne du comme tukki guddi yëpp diggante xefe xippi fa mu tëddoon balaa tàngoor waa jëm dem da baytul maqdis ak yëfa xew yëpp xew na fa te ci jëmmam lay jote boromam ak ci roxam ñiy werante ndax yonent bi dafa rañaan ci roxam rek wala ci jëmmam bàyyi na rañaan ci roxo ak jëmm mooy jagleeg yonentu waaye góor yàlla yu bëri yàlla may na leen rañaan ci roxo moo tax mu ne wa inni bihi asri wa usri bi sirrihi wa asri wa inni lahu asri wa usri bi sirrihi lada lada alxadrati alulya ura mutaakifa damay rañaan jëm ci yonent bi waaye damay rañaanal ñeneen maay def ñeneen ñu rañaan jëm ci yonent bi baay am na ci ay taalibe yu ko bind seen ak rañaan wa inni bi lahu usri wa usri bi sirrihi damay def keneen mu rañaan la del xadratul ulya ura mutaakifa wax na ne saraytu bi ruuxi xanaa leeral na boppam foofu saraytu bi ruuxi axtafi jisma ahmadin maa rañaan ci sama roxo topp jëmmi ahmad ngella luy rooxo ak ngella luy luy jisma ahmada loolu beneen wax la waaye déggal ne bàyyi nee na man rañaan naa ci sama roxo bàyyi am na rañaan goo xam ne cëli bi sax la ko defee mu ne yéeguma rek lu may yéeg ne maa ngi ci suuf maa ngi téye sama xet bi yëguma rek lu ma yëg ne maa ngi téye sama xet loolu beneen waxtaan la rañaan dox na doy na waxtaan duñ dugg ci loolu sa yonent yi yàlla may na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan googu nga xam ne ñoom dajee na moom ci rañaan googu dajee asamaan su njëkk daje yaxya ak isa dajeeg daje yaxya ak isa dajeeg uh, yusufa dajeeg haaruna dajeeg muusa dajeeg yusufa dajeeg muusa isa dajeeg ibrahima alayhi salaam ñoom ñëpp dajee nañu moom ñoom ñëpp ñi dëggal ak yonentam mu dajaat ak ñom ñom ñëpp ci baytul maqdis ñom ñëpp mu jité len julli pour wone ne ki moy sayyidul anbiya wal mursalina salawatullahi alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in motax bayne yuriquni zikra surahu bi makkatin bayne na leg leg fatali qur'an ak yonentu bi ci makka daf may tere nelaw waqat kistu ësri ba may waaja a rañaan waxatuma waaj waaye dama rañaan yu ëriqu ni zikra suraahu bi makkatin waqat kittu ësri aw saraytu kazaliki ba may waaja rañaan bàyyil ba may waaye dama rañaan sax fàttaliku rañaan gi daf maa yóbbu ci rañaan fàttaliku yonentu bi sallallahu alayhi wa yóbbu ci julli daf ñu yóbbu ci or daf ñu yóbbu ci jàpp lislaam daf ñu yóbbu ci jàpp alquran daf ñu yàpp yóbbu ci bëgg yonent bi daf ñu yóbbu ci bëgg saxaabatu rasulillahi sallallahu alayhi daf ñuy yóbbu ci wéral yi wérutoon daf ñuy wéral ci saxal yi wér daf ñuy yóbbu ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbëggeel guy yokkute te du taxaw daf ñuy yóbbu ci bëggante ñu ni neen daf ñuy yóbbu ci bëgg réew mi ñu nekk daf ñuy yóbbu ci bëgg jullit ñi nekk ak daf ñuy yóbbu ci bëgg mindeef yi nekk ak ndax loolu la jëmbal lu mu fam jeex na lay salaatullaahi yuqarribu ni diyaanu maa ngi julli ci yontu bi nag sallallahu alayhi maa ngi ñaan ci barke julli googu yàlla ki nga xam ne mooy fay ku def yàlla nañu yàlla jegeel te tim yàlla nañu yàlla jéggal loolu la ñaan salaatullaahi wa salaamuhu maa ngi gis huud yi nga xam ne ñooy yahuud yi nga xam ne ñiy xeex diine fu mën a nekk bàyyi na yaan daa leen gis ne dëddu nañ jublu nañ dëddu nañ bàyyi fi lislaam may ko jàmm ñii xeex diine lay ndax bàyyi mbëggeelam nee na bëggeel bët bi muy xool doomi aadama kenn du ko xool di ko di ko bañ kon doomi aadama yëpp la bëgg waaye buy ñaan dafay ñaanal dëgg di ñaanal di ñaan yàlla ñiy xeex dëgg ak ñu ñu mën a doon kon saxaa yi nay lay ñaan alayhi salaatullahi duma salaamuhu wa min walidi cheikhan wa aslan wa muqtafa maa ngi julli ci yontu bi waaye julli gi mu ngi mel ni maa ngi wax ne julli gi sama bàyyee ko julli ci yonent bi bàyyi boo xam ne mooy kan cheykhan gannaaw bu mu nekkee bàyyi xan muy sama sëriñ wa aslan di cosaan wa muqtafan di koñ roy waxoon nañ ko ci commencement bi salaatullahi ma salaamu xafawtu abi xaasaahu wa huwa maa ngi julli ci yonent bi diko bëgg diko tag te sama baay lay tag lay lay roy fekk mu ngi doon sonné lolu fekk mom magla jazallahu anni walidi wa muallimi jazaa karimin nicma cheikhan wa murtada jazallahu abdallahi xayran فإنه هداني وشيطاني به لم ينال أزي باننا يالنا يالا في عبد الله كي بايم هيو موما جبل بسما شيطان من منوما قسم يونت بي دافني كو نيك امغا شيطان امغا ملاك مولاي سوار لو سي اك شيطان مولاي خير سي صفان يونت نم موم موم شيطان يم توبنا bayne sama bay moma tek ci yoon boo xamne sama sheytane munun ma yëngal sante na yàlla wasaana ilaahi nafsiya dahra la ura amilu ila ma laysa fi shar'i jaiza lolo gëna kawé yàlla sange sama bakan bi ba kën tuma gis ma jëng jëm ci lo xamne ne daganul ci shariat alayhi salaatullahi wa salaamu wa alin wa ashabin kulli alladhi qafa ngi julli ci yonent bi julli ci sahaaba yonent bi ak képp koo xam ne rek topp na yonent bi sallallahu alayhi ndax mun nañoo julli ci kudut sahaaba ndax yàlla ba mu waxee ne wala yusalli aleykum malaikatu li yuxrijakum min azulumati ila nuur te ku julli ci yonent bi yàlla julli ci yow salaatullahi wa salaamuhu bisal qadri ci biyee والمقدار قدرك مقدار عرب نيو بوك لوني فري واي عرب ني دون جانغال لغه دانيو واخ ني وقت بو بادي يوكي مانا مي يوك وقت بو بادي يوكي مانا مي يوك يونت بي نك دايوك نبوتوم اك دايوك ولايتوم دايوك نبوتوم مو غنا ماغ دايوك ولايتوم waaye dayoog wilaayatoom moo gën a yaatu ndax ci aadama la ba ci naf ko fi te dayoog nubuwatoom bam fàddoo rek la nubuwatu fàddu waaye wilaayatu dëgg-dëgg yonentu moo ko moom keneen kuy mos mos ci sa wàll bàyyi na maa ngi julli ci yonentu boobu nag feeg aji wax a ngi wax diyaa un min alhaadil bariyati Mustafa صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة ترينا به الإجابة عينا حينا في أنفسنا وفي أهالنا وزرياتنا وأصحابنا وخدامنا وأحبابنا وأنصارنا من حضر من الجميع وغاب وزدنا واعتنا وارفعنا ودافع عنا واحفظنا وسدد أمورنا ورحب أبداننا وقلوبنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك